alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin sayidil mujahidin wa ala wa saxaabatihi tayyibin wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi ddin mbokki jullit yu tedd ci gox yu fasantikoo ci réew mi ak ci bitim réew delsiwaat nañ ci karatanal yàlla fas yéene ànd ak yéen ci seen téere bi nga xam ne dëxaloon nañ leen ko di téere boo xam ne bu barke la ndax suñ mag ñu baax ñu ñu yaakaar ci réew mi li ci hëpp jàng nañ téere bi waaye ñoom ñëpp tamit boo xeboo nga ne jàngale nañ ko ngir naw gi naw xam-xam bi nekk ci téere bi ak naw giñ naw njariñ yi nga xam ne téere bi tënk na ko ñi koy tuddee kitaabul axdari yi muy téere boo xam ne tuuti na ci téye waaye rëy na lool ci boo càmbaree li nga xam ne nekk na ci mu ëmb ko ba tax na daal ku ko xam mën nañ laa jàppee ngay koo xam ne daal am nga xam-xam bu dëgër ci sa fondement wu diine ba lu ci bari mën nga koo def te doo ko laajte waaye ku ko réere nag moom jàpp nañ ne tamit réere nga lu bëree bëree bari ci sa wàllu diine léegi-léegi nag nit ñi sax xeeb téere bi ngir tuutiwaay bi te fekk na la mu làmboo ñu ci bëree bari taxut ñi xam ko ba tax na sax suñ mag ñu xorom xorome ñi daanañ ko tuddee wane ne lax dër yi ñu ne déedéet dangay wax làq jariñu muy téere boo xam ne ku ko làq rek danga jëriñu ci loo xam ne ni lu bëree bari la téere bi nag Abdourahman moo ko liggéey di boroom xam-xam bu siiw sukkandiku nag xam-xamam ci ngiru imaamu Malik ndax réeréewale na ñeenti ngir ñoo fi nekk di ñeenti école gannaaw saxaba yi te ñu tànqee seen école ya sukkandiku ko ci école yi saxaabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya ñeenti école yi moo doon école imaamu Malik Abu Hanifa Ahmad ibnu Ambal ak imaamu Shafi'i yu ridwanullahi alayhim jamian di nekk nit ñu baax ñeen yàlla gërëmal ñu leen Malik nag moo doon imaamu daarul hijra ca madinatul a daan jiite nekkoon boroom xam-xam nekkoon ku maandu nekkoon ku xam cofeel ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tax na bëgg gi bëggoon yonent taxoon na amul kenn ku ko mos a fekk muy dox nga ñemee koo laaj xadis yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu soo ko defee yaa ngi doxa dal waxi yonent bi waaye bala nga koo laaj da ngay bàyyi ba mu sangu ba solu parfum wu toog ca gàngu naayam nga nga door a ñëw laaj ko ko mu door koo nettali bëgg yonent bi yóbbu na ko benn bis muy nettali ab xadis benn jiit ñëw fett ko waaye mu ne daal jiit ji fett ki mu koy fett ak li muy métti lépp du tax mu dog waxi yonantu bi ngir mu métti lool ba kam doon jàngal gis xar-xaramu Malik ba ni mu sensé mu door koo xamal li nga xam ne moo ci nekkoon bëggoon yonentu bi sallallahu alayhi wasallam yóbboon na ko li war madina ak madina ak boppam musul fa nangoo war baax la wala mu fay war benn waruwaay mu ne moom daal cofeelam ak kersaam mayut ko suusu ëmb yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu di war ci suusoo sax waaye gis nga ko yàlla fay na ko ci barkeeb yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ba moom nee na gannaaw si gi amul benn fan bu may fanaan madina lu dul ba gis naa yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nii la ko waxee ma bittu laylatan fil madina illa ra'aytu rasulallahi fiha ndax nit ki lu muy sopp toujours di ko xeñtu rek bu yàggee mu dajee ak moom imaamu Malik mu baax moomu nag suñ boroom xam-xami réew mi sukkandiku woon ci am ngiram su la neexee nga ne li ëpp ci Afrique soo jant sukkandiku ci am ngiram muy ngir mu maandu mu jub mu baax mu sell moom nag ci la téere bi sukkandiku ay ngiram moo tax lépp lu ma fi wax rek xamal ne mi ko sukkandikoo ci xam-xamu imaamu Malik ak ci am ngiram téere bi nag mi ngi ko hubbee ci bismillahi rahmaani rahim ndax réeréewoo ne téere bi yàlla bi di alquran saar woo ci commencé rek mu ngi koy tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim ba mooy saar wale di baraatun minallahi wa nga xam ne dafa ñëw ngir déclarer xare te ku tudd xare sa xel daj jaasi sa xel daj xeej sa xel daj fetal ak kënu te loolu nag dafa safaano wanteeg ak yërmande moo waral saar wi ñëw di firi kóllëre googu moo tax bi maanaa ak déclaré xare boobu moo waral xamul bismillahi rahmaani rahim kon bismillahi rahmaani rahim la borom téere bi ubbee téereem bi bismillahi rahmaani rahim nag lu ama am solo la ndax nit ki lépp lu muy tàmbali wax ci bismillahi rahmaani rahim wala mu ne bismillahi rek sax moo xam day lekk wax ko walla muy naan wax ko wala muy sol wax ko wala muy dugg këram mbaa muy génn wax ko su boobaa seytaane dootul amati ci moom kàttan da koy sori waaye nit ki bu lekkee waxut bisimilahi naan waxut bisimilahi su boobaa bu ko yëgee bu ko yëgut saytaane def na ko ndoor moom te seytaane bu lekk ndoor ak yow mbaa mu naana ndoor ak yow ñam woowa mbaa ndox mooma fekk ba muy reesee sa xel mi moo yàlla rek moo cay nekk waaye nag boo xasee wax bisimilahi door a lekk mbaa nga wax ko door a naan pare wax alhamdulilahi rabbil alamina say bàkkaar sax yu ndaw yi yàlla jéggal na la ko kon bisimilahi loo xam-xam doole la kon nañ koy tàmbali ci suñuy mbir yonentu bi wax na ne kullu amrin dhi baalin laa yubdawu fihi bismillah fa huwa abtaru wa fi riwayatin fa huwa aqta'u wa fi riwayatin fa huwa ajzamu ay naaqisul barakati yonentu nee na mépp mbir muy nit di tàmbalee tawaxut ca bisimilahi rahmaani rahim kooku bu ko yëgee bu ko yëgul mbir ma mu ñàkk barke la bu sottee tamit barke du ca ne te barke dafa am solo maam Khalifa Niass daana wax ne barke duhul jëmm waaye jëmm ju nekk ñi xam ko barke duhul jëmm waaye place bu mu nekk ñi xam ko kon nag ku bëgg li ngay sóobu am barke boo koy tàmbali lu mun di doon na ko tàmbalee ci bisimillahi ndax turu yàlla lépp lum dugg dana ko barkeel dana ko dooleel moo wax borom téere bi di al axdari tàmbalee ko ci bisimillahi rahmaani rahim moo tax mu ne bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi ban buur mu ne araxmaani mooy buur bay xéewalaakoon bépp mbindeef ci àdduna arrahimi mooy buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira fii ci àdduna yàlla rahmaan la tudd xéewalam gi dana ko xëpp ki ko weddi dana ko xëpp ki ko noonoo comme ni mu koy xëppee ki nga xam ne nii gëm na ko ndax àdduna moo xamul solo ci yàlla ba yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne àdduna ni mu toll bu xamoon poids bu day ni ci yàlla mbaggam yoo mu ne li ko doon xéeféer du fi naan kaasab ndox guuxam ndox sax la wax juraata maa in kon yaakaar naa loolu day tekki àdduna ak ñàkk soloom moo waral léeg-léeg yàlla reggal fi ab xéeféer xiifal fi koo xam ne ab jullit la yàlla léeg-léeg mu reggal fi aw ah, mu reggal fi aw bàyyi ma xiifal fi koo xam ne nii ab yonantu la gis nga yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam daana bëgg naafi la guddi du xam lu mu reeree te mënta ñàkk naafi la guddi mu jàllar bi ku jël ay xeer takk ko ca legg ya ngir taxaw mën a julli te terewut ànd loolu lépp aw bëy a ngi fi lekk ba regg moom di tëbantu kon yàlla dafa kontewut àdduna moo tax du ko fayee ay soppeem xalaaxira nag mooy kër gi nga xam ne moo jaral liggéeyal kër googu nag mooy kër ak dund ga moo tax googu moom ay soppeem rek la koy fayee waaye képp koo xam ne noonam nga rek doo xam foofa cër moo tax nag àdduna ñàkk gim ñàkk solo tax lu ne rekk yàlla loo ca dogu rek mu dogal la ca moo tax moom mu tuddee boppam fii rahmaan bu ëllëgee fële mu tudd fa rahim mu ne wasallallahu yàlla na yàlla dolli xéewal ala sayidina ci sang suñu muhammadin muhammad wa alihi ak ñoñam ña wa saxbihi ak saxabaam ya wa sallama tam musalal ko xeetam wi kon gis nga ko gannaaw bi mu tàmbalee turu yàlla wi sàkku na yàlla mu tedd mu foor moomu xëpp yërmande ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yàllaa ngi sababee suñu am ci amam nga ndax bu taxutoon ak moom yàlla du xamal dara yonent bi nag nekk koo xam ne ku bari yërmande la baax lool mu ne kuy julli ci man xem ci man boobaa julli ga day nekk salaatul batra mooy batra mooy gàtt bu njàdde gàtt boo xam ne genn ba dafa dagg boobu nag buul dooku doowul bu ñu taamu ci gàtt moo tax mu ne woon falaatu sallu alayya salaatan batra bu kenn julli ci man julli goo xam ne dafa njàdde boroom xam-xam yi coow ci salaatu batra mooy lan ñenn ñene mooy salaatu gu xamut salaam ñenn ñi ne déeréet li gën a wér daal mooy salaatu goo xam ne dangaa tudd yonantu bi muhammad moom kenn te tuddloo aalihi tuddoo saxabaam ya waaye boo tuddoon aali rek te waxoo saxaaba ya dugg na boo tuddee tamit saxabi yi donte waxuloo aal tamit dugg na kon nag li gën a wér boo julleeti boo ne sallallahu ala sayyidina muhammad teg ca wa aalihi wa saxbihi ci lay gën a rafet soo ko mënul tamit nga teg ca wa saxbihi wala nga teg ca wa aalihi rek loolu la borom téere bi bañ mu def salaatul batra moo tax gannaaw bi mu jullee ci yonantu bi mu teg tekke ñoñam ña ñoñam ña nag mooy ñoo xam ne nii ñooy bokk dereet banu hashim ak mu mutalib ku ñoo xam ne dañ koo gëm bokk ak moom deret teddee ca tedd ak sayyiduna muhammad ga ñooñ ñooy aali yi wa sax bi yi nag mooy képp koo xam ne jamono hante gaag yonantu bi jàllar bi ku gëm ko su boobaa saxaaba nga ñoo ña nag di saxaaba yi ñoo gën a foor ci mbindee fi yàlla yépp gannaaw yonantu yi yonantu yi rek ñoo leen gën a foor moo tax yonantu bi ne inna allaha faddala ashaabi ala jamiil xalaayiqi siwal anbiyaai wal mursalin mu ne yàlla gënal na suma saxaaba yi ci mbooleem mbindeef yépp ba mooy yonantu yeeg ñu ñu solo ña rek ñooñu ñoo ñu gën saxaaba ya waaye xutbu yàlla li muy foor foor wëliyoobu yàlla li muy foor foor te duut ab saaba ab saaba bi nga xam ne moo gën a suufee daraja ci saaba yi moo gën a for waliyu ba wala moo gën a for xutbu booba laajoon nañ ko Seydi Ahmad Tidiane yi ne ko waaw xutbu yàlla yi ak saaba yàlla yi seen may nu mel mu ne daal ñun xutbu yi suñ may dafa mel ni melentaan wuy dox saaba yi seen may mel ni maanaam pitax muy naaw ku ne xam na ne nag melentaan li muy dox ci benn xat benn pitax mën na koo naaw ci ay minutes kon nag saaba yi ñu ngi noonu seen may nekk ñoo xam ne ñu foor lañ ñoom ñëpp nag lañu war a bokk sopp leen bëgg leen topp bañ a andi xàjjale bañ a andi tamit ak ak maanaam tàndaas ki seen diggante ka ca jiitu nag te gën ca mooy Seydina Aboubacar mi yonent bi ne woon jant bi tiimut bi maanaa ku gën Aboubacar suma gannaaw kon nag salaatoog salaam a nga noonu ci yonent bi salaatoog salaam nag ñetti xaaj la. salaatoog salaam goo xam ne yàllaa ko defal boppam ci yonantu bi ak salaatoog salaam goo xam ne malaaka yee ko defal seen bopp ci yonantu bi ak salaatoog salaam goo xam ne nii mbindeef yi maanaam di doomu aadama yi ñoo ko defal seen bopp ci yonantu bi ñoom ñëpp nag di ñoom ñett yàlla bokk na ko tënk ko ci benn aaya ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi door ñoo wax ne ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ne man yàlla maag sumay malaaka yi ña nga sax dappet di julli ci yonantu bi kon gis nga yonantu foor na ba yàlla di julli ci moom indi ko nag ci siratul mudaari yi te fi'lu mudaari ulamaa wu balaax dañuy wax ne yadullu ala dawaami wal istimrar dafay tegtale ak dappetu ak continuer toujours kon julleeg yàlla ak julleeg malaaka yi ci yonantu bi xamut waxtu xamut lim xamut dayo bu muy xem toujours day continuer ñun ñi nga xam ne nag suñu julli ci yonantu bi xam na waxtu xam na heure am na yemukaay mu jox ñu fi'lu amar moo tax mu ne sallu alayhi wa sallimu tasliman boroom xam-xam yi nag wuutee nag julleeg yàlla ci yonantu lan la julleeg malaaka ci yonantu lan la suñu julli ci yonantu lan la boroom xam-xamu fuqahaw yi ne julli doomu aadama yi ci yonantu bi de jaamu yàlla la julleeg yàlla ci yonantu bi de yërmande la julleeg malaaka yi ci yonantu bi de njëggalu la cheikh na ahmed tijaani ne daakooruma suñ julli ñun doom aadama yi ak malaaka yi yépp ci yonantu bi jaamu yàlla la julleeg yàlla ci yonantu nag buñ jéem a xam lan la waaye ñun ak malaaka yi daal suñ julli ci yonantu bi moom jaamu yàlla ñoo taxem képp julleeg yàlla nag ñun xamuñ lan la yàlla ñu wax ne ma nga julli ci yonantu bi na muy jullee ñun xamuñu ko kon ci nga gis ne jaamu yàlla yépp yàllaa ko digle mais defu ko ba mooy julli ci yonantu bi sa alayhi wa sallam yàllaa ñu digal julli waaye julliwut moo ñu digal joxe asaka joxewut asaka waaye julli ci yonantu bi moom fa koo def ba pare door koo digle kon jaamu yàlla la gu foor a foor foor gi mu taxoon yonantu bi ne jibril ñëwal na ma ne sama borom nee na man salla alayka salatan wahida salla alayka ashra sallallahu alayhi mi'a yonantu nee na jibril ñëwal na ma ne képp ku julli ci yow benn yoon yàlla dana julli ci moom fukki yoon ku julli ci yow fukki yoon yàlla dana julli ci moom téeméeri yoon ku julli ci yow téeméeri yoon yonentu wax na ci beneen riwaaya ne yàlla dana julli ci moom junne yoon ku julli ci man junne yoon su ma mbagg ak sa mbagg dañ riisoo buntu aljana xawma maa lay njëkk dugg xawma yaa may njëkk a dugg kon nag nañuy njëkkalante bari lu ñuy julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam salaatu goo man nag baax na allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim baax na allahuma salli ala sayidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbi wa sallim baax na euh, salaatu wa salaam sax ala ala sayidina muhammadin sax baax na boo man rek baax na allahuma salli ala seydina muhammadin il fatihi lima uxliqa ba mu jeex baax na boo man rek defal di ko xëpp ci yonantu bi nu mu gën a baree gën a baax benn waaye ñëw na ci moom ne ko dama bëggoon a xaaj sama dund ñetti xaaj genn wàll ga ma jox ko di ko julli ci yow yonantu ne ko soo defoon lu gën a bari mu gën a baax ci yow mu ne ko kon damaa bëggoon a xaaj sama xaaj sama dund ñaari xaaj genn wàll ga ma julli ko ci yow mu ne ko boo defoon lu gën a bari mu gën a baax ci yow mu ne ko kon damaa bëggoon a xaaj sama dund ñetti xaaj ñaari xaaj yépp ma di ko julli ci yow yonentu bi ne ko boo ko defee mu gën a baax ci yow léegi nag kon loolu day tekki ne noo gën a jullee ci yonentu bi rek mu gën a baax ci yow sa yiw di gën di yokku te loola nga julli ci yonentu bi day nekk tiyaaba joo xam ne yonentu bee koy garante dootul yàqooti mukk koo xameel xaq boo liggéey bu ñuy fay ba sës ci julli gi nga julli ci yonantu bi yàllaay génnee ca màngasinam ya di fay waaye julli goo xas julli ci yonantu kenn du ko fayee kenn kon nag nañuy bëri lu ñu julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ñu julli ci moom nag jëriñu ko dara yokkut ko buñ ko bàyyi woon tamit wàññiwut ko waaye ñun lay yokk suñ ko bàyyee tamit ñun lay wàññi soo ko bëggoon a dégg daal mu ngi mel ni ab président moo xam ne mi ngi lif am réew nga bàyyi ba ngoon jot nga jënd mburu moo xam benn mburu la wala ñaar dem jox ko ko waaye mburu mooma yokkul dara président waaye nag yow la yokk ndax mburu mooma nga may ko ko ngir yëg ko mën na laa jural ay fuuri mburu ndax danga koo mayee ci ni nga toll su boobaa moom tamit mën na laa mayee ci ni nga ni ci ni mu toll su boobaa bu la mayee ni mu toll rek su boobaa sa bunt yëpp ubbeeku kon nag yow li nga lebal yonantu bi ci ñi nga toll ci sa xeebu bu ko yonantu bi nangoo jël ko ci ni mu toll ci baax ak yàlla rek sa bunt yëpp ubbeeku moom la téere bi hubbee julli ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci bi nag moom ñetti mbir ñoo xem xatte tudd baatu seede bi julli ci yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak maanaam sant yàlla ñoom ñett ñoo xem xatte ci shariatul islamiya war na jullit bu nekk benn yoon ci dundam baatu laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam boo ko xasee wax benn yoon ci sa dund maanaam wàcc na lépp doonte waxaatoo ko beneen yoon waaye nu mu gën a bëree gën baax ci yow waaye ku dund ba génn àdduna waxuloo ko benn yoon su boobaa nag weddi nga lu sax ku weddi lu sax dañ lay mbugal mbugal mu sax ndax yàlla xamam nga dafa sax soo weddee nag ba tax waxuloo ko kon boo léegi da ngay dugg safara ñu mbugal la mbugal mu sax dootoo ti mukk ñaareel ba saa yoo xëyoon sa dund lépp nga ne alhamdulilahi rabbil alamin donte benn yoon la wàcc na la waaye nu mu gën a bëree gën a baax ci yow ndax yàlla nee na ku ma sant ma dolli la te nag jullit du dañ mukk di di xaajowoo jëm ci ndollal ak yàlla naka noonu jullit ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sa dund yépp boo ko defoon benn yoon wàcc na la waaye nu mu gën a bëree rek gën a baax am na ñuy def ñetti junne par bis am ñuy def fukki junne ñaar par bis na ñuy def sax lu ëpp loolu par bis moo tax kon mu ne wa sallallahu yal na yàlla dolli xéewal ala dinaa ci sang suñu muhammadin muhammad wa alihi ak ñoñam ña wa sahbihi ak sahabaam ya wa sallama te musalal ko xeetam bi yonent bi moom mucc na ku koy ñaan xeetam bi mucc alhamdu mboolem xaaji cant yi ñeent lañ ñoom ñeent ñépp lillaahi aji sax la ñaal yàlla man yàlla rabbil alamina yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindeef yépp xawaalim yépp moo leen moom bii ñuy dund nag benn la ci waaye yàlla li ma am ci ay xawaalim kenn xamut ni toll wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa soldaari yi sa borom ni ngi tollu kenn xamu ko ku dul moom wasalaatu dooleeku xéewal wasalaamu dooleeku mucc ala sayidina yàlla na nekk ci sang suñu muhammadin muhammad xaatimi nabiyina ki mottali ñuñ solo ñi wa imaamil mursalina tey njiital ñuñ yónni ñi kon gis nga ko sant na yàlla gannaaw bi mu julee ci yonantu bi sant yàlla ñeenti xaaj la yàlla mu sant boppam yàlla mu sant jaamam jaam bu sant yàlla jaam bu sant moromam jaamam ñeenti sant yëpp yàllaa ko moom yàlla mu sant boppam ñëw na ci alquran moo tax mu ne alhamdulillahi lati xalaqa samawati wal ardi kooku yàlla sant boppam gannaaw bi mu bindee asamaan ak suuf mu ne maa ngi sant buur bi nga xam ne moo bind asamaan ak suuf te mooy moom ñaareel bi mooy yàlla moo xam ne moo sant ab jaamam kooku ñëw na ci alquran moom la yàlla di wax ne ni'mal abdu innahu awaab di sant yonentu yàlla ayuba ci mën a muñ ga ca mbaax ga mu ne is këy sama jàmbee baax delluwaa kaan dol delluwaa kaan la ci man di ayuba kooku mooy ni'mal abdu innahu awaab ñaareel ba nag wala ñetteel ba mooy bi maanaa jaam bu sant moroomam jaamam kooku xaddisa ko andi di wax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yonentu nee na man laa yaskuri naasa laa yaskuri laa ku dul sant nit ñi doo sant yàlla ndax yàlla lépp lu mu lay jox ci nit la koy jaarale bi ci des nag mooy nit koo xam ne dafa sant moroomam nitam kon mbooleem ñeenti sant yëpp boo ko dàqee ci yàlla rek lay dellu mu ne nag yàlla moom mooy borom mbindeef yëpp mu doon ñaan salaatoog salaat ci sayyiduna muhammad mi nga xam ne moom mottali ñuñ solo ñi ñun solo ñi ak ñuñ yónni ñëpp boo leen calculer day nekk téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeent muy 124000 ci ay prophètes la yàlla am ñoom ñooñu nag mu tànn ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett di 313 yónni leen jox leen mission ña ci des ñëpp amuñu mission 313 yooyu nag mu jàllar bi ko tànnaat ci ñaar fukk ak juróom tudd seen tur ci alxuraan alquran li muy rëy rëy ñaar fukk yonantoog juróom rek la tudd ci biir ñaar fukk yonantoog juróom yooyu mu tuddaat tamit yeneen juróomi yonantu ne ñoo gën a foor ci yonantu yi tuddee leen ulul azmi moom la alquran ne wasbir kama sabara ulul azmi min rusul juróom ñoo nge nag moo doon yonentu yàlla noox yonentu yàlla ibrahim yonentu yàlla musa yonentu yàlla isa mu tànn ci biir juróom ñooñu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk koo xam ne moo leen mottali mooy seen ilimaan mooy seen sang moo tax mu leen ba daan wax ne ana xiyaarun min xiyaarin min xiyaarin ndax boo jëlee 124000 yépp boo leen doon segg yàlla tànn ki ñetti téeméer fukk ak ñett yonentoon ci biir ñetti téeméer ak fukk ak ñett yi mu tànn ki ñaar fukk ak juróom tudd seen tur yàlla muhammad a nga seen biir mu tànnaat ci juróom muy ulul asmi sayyiduna muhammad ma seen biir ñu jël ko génnee leen ñoom ñëpp yonentu bi jël premier moo tax mu ne kon tànneef laa ci biiri tànneef ci biir biiri tànneef kooku mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon gis nga ko moo mottali yonentu yi moo njiiti tamit yonentu yépp mottali gi mottali yonentu yi alquran wax na ko yaa ngi koy jàng mu ne wax wa xaatama na am nañu jàng wa xaatimi nabiyiina su fekkee dangaa jàng xaatam Euh, fataa ko mooy maanaam tampon biñ doon tamponel yonantu yi tampon boobu sayyiduna Muhammad lañ ci mujj a xam ne mu ngi woon ci euh, xóot-xóotu mbaggam ma amoon na ay kawar yoo xam ne ñoo ko seqoon maam Alaaji Maalik ca xilaas ba mu ne karaw ya boo ko compter xëpp ñaar fukki kawar ñii ne dafa mel ni nen ab pitax ñenn ngeen dafa mel ni xaafab maam yàlla mooy daal ci mun di xam lu euh, tampon booba sayyiduna muhammad lañ ko mujj a moo tax ñenn nga jàng wax xaatama nabiyina boo jàngee wax xaatami nabi nag ismu faa'il la mooy yonantu bi moo ñëw ngir kaste yenoon yonantu yi gannaawam ba àddunay tukki beneen yonantu dootul xamati looloo waral sax mu bokk ci turam ya aaqib aaqib mooy tekki aji mujj boo gisee mu mujj li lépp lu ñu doon soxla ci luñ war a xam ci àdduna war koo xam ci àllaaxira dafa ñëw indil tée bu ko bu ko jàngalee mu jàllal bi ko jàngal ñu ko moo waral bu beneen yonantu ñëwee lu muy mën a waxati lu mu waxati ngi ne ko yonantu waxoon na ko boo ñëwee taxaw ne yàlla ma yónni ñu ne yow la ñuy déglu nga ne ah yàlla nee na bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah ñu ne ko ah, yonantu waxoon nañu ko bu yàgg di nga ne alif lam mim dalikal kitaab ñu ne sayyiduna muhammad jàngal nañu ko bu yàgg kon ku ñëwati rek dootoo mën a waxati lu dul lu yonantu bi waxoon moo tax kon al mujadiduna ñoo fi am ñuy beesal ñuy beesal bi maanaa diine yonantu bi am na nag ñoo xam ne yàlla may na leen ba ñuy mën a donn maqaamab sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xeet wi su ko defee kon nag moo tax mu ne moom mottali yonantu yi te mooy njiital moo tax mu ne alhamdu mbooleem xaaju cant yi ñeent lañ lillaahi aji sax la ñaal yàlla rabbil alamina yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi wasalaatu dooleeku xéewal wasalaam ak dooleeku mucc ala sayidina yàlla nekk sang suñu muhammadin muhammad xaatimi nabiina ki mottali ñu solo ñi wa imaamil mursalina tey ñiital ñu yónni yi léegi nag taq taqdiimu téere bi ci wàllu salaatu salaam jeex na mu ngi war a wax ak nag ñun boroom Axdari yu nag wëlbati na waxam di Abdurahman jëmale ko ci mukallaf yi kon nag képp kuy mukallaf war ngaa déglu li la war nga mën cee taxaw seet li nga xam ne warul la nga mën koo sori ndax nit ki saa yu nekkee ci li ko war yàlla koy musal ci li ko wër nit ki nag saa yu fi baxee li ko war yàlla bakoog li ko wër ku yàlla bax ak li la wër na nga torox moo tax nag borom téere bi bëgg a wax ak ñun li ñu war ñi mën caa taxaw ndax yàlla man ñoo musal ci li ñu wër moo tax mu ne li ñu war nag moom lay njëkk a wax ne awalumaa yajibu njëlbeenal la dana war dafa bëgg wax ne li njëkk a war rek njëlbeenal la dana war alal mukallafi ci kuñ togg jëf lan la mu ne tasxiihu imaani yi mooy mu wéral gëm yàllaam nga rekk mu ne déedéet su ma maarifatu maa topp mu xam li nga xam ne yuslihu dana xéwénalee bihi ci moom far farda aynihi farataay jëmam ya comme lan mu ne ka axkaami salaati ki mu fexe ba xam xàttey julli ak lan mu ne wa tahaarati mu fexe ba xam xàttey laab ak lan mu ne wa mu fexe ba xam xàttey koor mu ne kon mu kallaf li ko war mu kallaf mooy kan mu kalaf boo ko doon tënk daal mooy képp koo xam ne mësoor na te fekk xel ma yàquwut ndax yàlla xel lay gàcc mbir yi mais du ko gàcc jëmmu nit lu jëmmu ja rëy rëy bu fa xel nekku rek yàlla toggul ko dara lu jëmmu tuuti tuuti bu fa xel xasee ne te mësoor xas am kooka gàcc nañ ko lañ gàcc baayam gàcc nañ ko tamit lañ gàcc waajuram wu jigéen di yaayam kooku mooy mu kallaf boo demee ci ibnu ashir mu ne ñetti mandargaa ngi boo ki njëkk a gis rek mu kallaf nga su fekkee góor nga nga gis baax ab góor mu kallaf nga boo xamee kawari naq wala poqataan mu kallaf nga boo xamoon fukki xat ak juróom ñett tamit mu kallaf nga boo dee jigéen tamit boo gisee baax ab jigéen rek na la wóor ne li war sa yaay ci li baax lu mu war a def war na la bis ni tey li nga xam ne tamit lu war sa yaay mu war koo war a moytandiku tey bis ni ki tey war na la bul jàppeeti sa bopp ci xale yi ndax yàlla dugal na la ci kalaasam mag ña kon nag mu kalaf daal mooy koo xam ne dafa mësoor te fekk xel ma yàquwut boo fi nekkee naan xay laa man 18 ans rek laa am man amaguma sax 20 ans nangam ak nangam di tuutil sa bopp fekk na yàlla moom teg na la mission bi mu teg sa bàyyi lépp lu ko war ci lu mu war a taxawee war na la lépp lu mu war a moytandiku tamit war na la ku fa xas toll rek neetoo ku ndaw kooku nag li ko war a njëkk a war mooy mu fexe ba wéree fi gëm yàlla am ba mu wér mu wéral ko gëm yàlla nag mooy fondement ndax mooy pas-pas bu gëm yàlla xasut am lu julli bari bari amut njariñ lu xoor bari bari amut njariñ moo waral bi maanaa góor gu tedd ga sëñ musaa Ka daana wax ne bala ngaa xam ne pas-pas a am njariñ nga ngay ngay ngay ngay ñaw fàtte maanaam fas wëñ ga su boobaa boo xëccee li nga ñawoon lépp dafa lay topp waaye boo xasee fas wëñ nga boo xëccee rek li nga doon ñaw dana nekk lu tëralu kon nag li njëkk mu kalaf mu fexe ba defar pas-pasam yëg ne borom bi moo ko bind moo ko sàkk bokkut ko kenn mu fexe ba bu mu bokkaaleeg borom bee kenn borom bee la bind bokkut laa kenn moo lay wër sëgal bokkut laa kenn moo lay rey bokkut laa kenn sa bàmmeela bopp lañ lay dugal doo ko bokk ak kenn kon nag ba sa borom bi jaar ak yow foofu bu ko bokkalee kenn nga fexe ba xam li nga xam ne mooy li jaadu ci yàlla xam ne dafa war ci moom xam li nga xam ne dafa jomb ci yàlla yooyu yëpp tamit nga man koo xam gëm ko mu bokk ci yi ñu war a gëm muy ñaar fukki melo yi nga xam ne dafa war ci yàlla ak ñaar fukki melo yi nga xam ne dafa jomb ci yàlla ak yi nga xam ne tamit dafa jaadu ci yàlla li war ci yàlla mooy xam yàlla xamam nga dafa war nga gëm ko te mooy ki xam te dara xamalu ko leneen lu dul moom dañ ko xamal yàlla dafa jiitu dara njëkkut ko te dara du ko mujj nga jàpp ne tamit yàllaay ki fii des bu fi lépp bàyyi ko nga jàpp ne yàllaay ki xoomal ñépp xaajowoo jëm ci moom te moom xaajoowut jëm ci kenn nga jàpp ne yàlla moomu ku xuuteeg mindeef yi la ndax mindeef moo gën a naw wala mu gën laa jege di sa bokk boo saxee ci moom ne ko may ma may ma ñetti fan mu jéppi la yàlla nag boo saxut ci moom ne ko may ma may mu jéppi la nga gëm na yàlla moomu ku wéet ca jëmmam ja la jëmmam ja jenn la nga gëm ne meloom wa wenn la nga gëm ne jëfam ja jenn la nga gëm ne borom nammeel la boroom kartan la boroom xam-xam la boroom ak dund la boroom ak dégg la boroom ak wax la boroom ak gis la waaye tekkiwul ne dafa am bët tekkiwul ne dafa am làmmeñ tekkiwul ne dafa am nopp waaye yépp nag dafa nekk melowu sax ca moom nga gëm ne nag tamit nag safaanab melo yooyu dafa jomb ci yàlla ñàkk mën taxam ci yàlla sosu mënta xam ci yàlla sosu mi ngi ñeexal ñun sos ñi nga gëm ne jeex mënta xam ci yàlla xaajoxoo jëm ci dara kooku kuñ bind mooy xaajoxoo mais ki bind moom doo xaajoxoo jëm ci dara looloo waral sax bëggul doom ndax doom ku koy xut ñaar a tax boo lottee mënatuloo li nga doon def mu taxawee ko boo deexee li nga doon def mu continuer ko ki xas nag moom jaam yépp lu muy defee doom moo tax li yàlla gën a bañ mooy ku koy sàkkal doom ndax saa yoo ne xam nga yàlla xam na doom rek lottuloo nga ko ñaareel bi saa yoo waxee ne yàlla xam na doom rek ray nga kon doom kuy lott moo koy soxla doom tamit kuy dee moo koy soxla waaye koo xam ne dafa am kattan ci lépp te du lottu jëm ci dara kooku duwul koo xam ne ni ku soxlawoo doom la nga gëm ne yàlla moom mënul tolloog mbindeefam yi nga gëm ne yàlla moomu wéetaayam nga nu nekk lu mën a dàqu nga gëm ne li ñuy tuddee maanaam ak lottu ak ak cibeel ak ak réer ak dee ak tëx ak muuma ak gumba ak ak noppi yii yépp dafa jomb ci yàlla waaye nag jaaru na ci moom nag mu bind mbindeef yi bind yi leen bind nag ak bàyyi leen ñëpp moo yem ci moom xataa bu leen bind toon tamit dafa jaadu kon nag ñun suñu xam geeg suñ ñàkk gi yépp dafa taxaw ci kaadarab jaadu yii nga fexe ba gëm ko ci sa xol bi gëm goo xam ne nii gu wér la nga gëm ne yàllaa yónni yonantu yi nga gëm ne yàllaa bind malaaka yi ñi koy jaamutu duñu ko moy nga gëm ne dee xam na nga gëm ne dekki xam na nga gëm ne lépp lu yàlla xas teg ko ci sa loxo bu mbindeef yépp doon wax wala ñiy pexe pour jëlee ko fi te yàlla d'accord ci du xam lu la mindeef yépp xéenee woon tamit pour jox la te yàlla jox la tamit du sotti nga nga gëm rek ne qul lan yusibanaa illa ma katabalaahu lanaa huwa mawlaanaa yii daal bu ko nit ki xasee gëm tasihu imaan yi daal am na ci moom te mooy mu wéral gëm yàllaam ci lu wér péng gannaaw bi mu ko wéralee nag mu fexe ba gëm yàlla bu doon garab ndox mi koy dundal di ko arrosé mooy maanaam jëf yi ñuy jëf muy julli ya xoor ya joxe asaka ya xaj màkka ya rafetal jëmee ca ndëkka dëkkandoor ya taxawee sa njaboot ak ya ca aju loolu nag kenn mënu koo def nam waree na ko yàlla bëggee lu dul nga xam ko waaye saa yooy def te fekk xam-xamut mënoo mukki ci ñaar benn nga dugal ca lu ca bokkut mbaa nga génne ca lu ca bokk jëf ju mun di doon nag saa yoo ca génnee lu ca bokk mbaa nga dugal ca lu ca bokk rek jëf ja yàqu na li lay mën a musal ci loolu mooy xam moo waral gannaaw bi sa gëm rafetee ba mu am am laytaay bu dëgër jëlal sa nag nga dem sàkku ji xam-xam ne waaw laab moom nuñ koy defee nuñ war a jàppee jàpp lu cay farata njàpp lu cay sunna njàpp lu cay luñ sopp waaw nuñ war a sangee janaba lu war a jiitu lu war a mujj nuñ koy defee waaw julli moom ku taxaw looy wax ku rukkoo looy wax ku sujjóot looy wax ku taaya looy wax waaw julli moom lu mu taxawee xoor moom lu tax yàlla sanc na ko loolu lépp nga jéem koo taxawee genn wàll giñ def ci suñu àdduna ba kenn mënuñu cee nax kenn ku ne ci ñun yére ya ngay sol xam nga la muy jar or ba ngay takk gramme ba fa mu toll xam nga ko ba naka noonu place bi nga xam ne yaa ngi koy jaay na marchandise ma mun di toll donte conteneur lañ la wàccee lu ca sànku xam nga ko waaw loolu nag ni nga xitteewoo ba xam ko taxaduna rek la genn wàllaati genn wàllaatam boo ko defoon xam sa diine te nag suñu réew mi yàlla barkeel na ko barkeel gu day ni néew na nga dox juróom fukki meetar te dajeexoo ku la mën a xamal sa diine waaye nag foo toll sa àdduna kenn mënu la cee nax sa léppi àdduna xam nga ko bañ lay tuddee maanaam intellectuel nga ci lépp te sa diine xamoo ca tus kooku moom intellectuel intellectuel nga maanaam wàññeeku na doy na waar. kon nag nañ fexe ba xam suñu diine gannaaw bi ñu gëmee yàlla ba pare ñu xam lan mooy defar suñu diine moo tax mu ne awalu maa yajibu njëlbeen la dana war alal mukallafi ci kuñ togg jëf tasxiixu imaanihi mooy mu wéral ak suma maarifatu ma topp mu xam la nga xam ne yuslihu dana xéwénalee bihi ci moom farda aynihi farataay jëmmam ka ahkaami salaati ni ki xàttee julli wa taharati ak xàttee laab wa siyaami ak xàttee koor ñaareel ba mu ne waye jibu dana war alayhi ci mukallaf an yu xaafisa mu wattuwanteeg ala xuduudillaahi ci dayale yàlla yi mooy frontière yàlla yi lépp lu ñu yàlla digal rek am na frontière ba mu la joxee soxna yi ne la takkal dafa ne la ñeent bu ko paase mooy sa frontière mu jàllal bi ko tamit ne la tamit jigéen goo takkut amuloo droit di jaxasoog moom walla maanaam ngay jëflanteek moom mag ya ca aju kooku sa frontière la bu ko jege bu ko tax sax bu koy wax day ma sax laal may day wax ne falaa fala taqrabuha tilka xuduudullaahi falaa taqrabuha bu leen ko jege kon boo ko doon misaal dafa mel ni feu xam nga tey boo doon yoree sa oto ñëw ba ci feu bi tàkk da ngay taxaw doo mën a départ sooy départ rek da dal ci kaw dara mbaa am lu dal ci sa kaw kon nag yàlla dafa ñoo sampal ay feu rouge ci lu ñuy lekk ne lekk yaa ngi nii man ngeen lekk mais mën a lu tey te dagan laa wax lépp lu xaraam sori leen ko bu leen lekk mbaam xuux bu leen naan sàngara bu leen lekk ngeen sàcc bu leen lekk ngeen tiriyan bu leen bu leen nangam soxna yi na ngeen jëfandikoo ja ngeen takk sori ñoo xam ne ni takku leen leen naka noonu bi maanaam bu dee la ngay wax waxal lu rafet bu jeexee nga noppi bul bul ca dugal lépp lu ñaaw kon nag lépp lu ñu yàlla gàcc rek am na ca frontière moo tax mu ne nag jullit bi war nay fexe bay wattuwanteeg frontière yàlla yi comme réew yi rek ñoo xam ay frontière ba tey bu sa frontière jeexee nga bëgg a dugg feneen faw ñi laal la ay kayit kon tamit rawatina yàlla diineem bi dafa am frontière dafa cee fiir moo tax mu ne kon nag na wattuwanteeg frontière yàlla yi muy dëxalam yi wa yàqi fa nay taxaw inda amri yi ci def ndigali yàlla yi wa nax yi mu baxi tere yàlla yépp yàlla moom lim digle lépp kenn mënu koo def mais def ci la nga man la mu tere nag moom bul ca jéem dara baaxal lépp tooke la loo ci laal alku mu yég ne nag nit ki du wut malaaka léeg bakkanam ak seytaane mën na koo man ba mu tarxiis ndax moom fakkastalu mukki ci yombut yonantu yi rek la yàlla def ñuy maasumiina yi nga xam ne ñoom mënuñoo mooy yàlla luñ xas nekk ña nga ca yàlla dafa leen mooñaale ak mat waaye ku dul ab yonantu tarxiis dana la dab waaye yàlla nag nekk buur bu baax ne sa tarxiis lu mu bari bari bari du tax ma ne man fuuti na yàqu na soxlaatuma ko déedéet man feek jaam bi mi ngi may tàllal ay loxoom ma di ko tàllal samay loxo di ko soxla moo tax nag mu hubbi la fenêtre boo xam ne boo tarxiisee fan nga war a dellu pour ba mën a gisee sa borom kooku nag mooy fenêtre ab tuub moom lay bëgg wax si nii tuub nag xam na solo xam solo gim xam solo moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi daana wax ne attaibu mina zanbi kaman la zanba la ku xam bàkkaar ko moo xamul bàkkaar ñoo yem xatti tuub moomu nag dafa am ay charta pour nag mu mën a mu mën a maanaam yàlla nangu ko mooy faw nga fexe ba matal sarta yi ñetti sarta mooy tuub bu fekkee da ngaa tooñ sa borom ñett la boo tooñee sa moroom ñeent la xam na borom xam-xam dañoo jàpp boo tooñee sa morom boo tooñee sa borom ba tey boroom lax dëgg nag moom ñett la indi moo tax mu ne tuub nag lay bëgg a wax moo tax mu ne waya tuuba war na mu tuub ilallaahi jëm ci yàlla subhanahu tudd na ma ak sellam xabla an yasxata njëkk muy sànji alay ci moom war ngay gaaw tuub bala laa sa borom bee jéppi nu ñuy tuubee mu ne taw ba tawbati sartaay tuub bi ci njëkk an na damu mooy réccu lu taxoon ngay def bàkkaar bi alaama faata ci li wees ñaareel ba wan niyetu mooy yéene allah yaxuda ba déet muy dellu ilaa zanbin jëm ci bàkkaar fii ma baqiya ci li nga xam ne des na alay ci moom min umri ci dundam nga ne ali des sama dund lépp bàkkaar bi may tuub dootuma ca dellooti ñetteel ba wa an yetruka mu bàyyi almasiyata mooy yàlla ga fii saatiyaa ca saasa inkaana ndem nekkoon na mu ta labbisan di aji làmboo bi ca mooy yàlla ga li ngay tuub kay nga ko war a bàyyi waaye maa ngi tuub te nekk ca mënta nekk kon daal tey lii boo ko doon misaal yàlla dafa ñoo rëddal benn miir boo xam ne mooy suñ frontière ku sob nag seytaane man la ba nga jéggi miir bi yàlla dafa lay wax ne la ba tey mën ngaa dellu si waaye nag ci ñetti condition bi ci njëkk d'abord fexeel ba jéggihaat miir bi dellu siwaat fi nga waroon a nekk kooku mooy al iqlaaw muy buddeeku bàyyi lu bon la nga doon def ñaareel ba mu ne réccul la taxoon ngay jéggi miir bi miir bi mën la woon bu ko jegee nga dem di ko jéggi nga réccu ci sa xol miti lu ko ne man daal li taxoon may jéggi miir bi daal réccu naa ko lool bu laajee jooy nga jooy ndax dafa am ñoo xam ne seen ronkañ dafa jege seen bopp xam ci ñoo xam ne nag seen xol dana jeex ñi koy métitlu ba mu tere ne na nelaw waaye du tax bi maanaa ñi jooy nga def noonu ñetteel ba nag nga ne xaw ma kan mooy jéggeeti miir bi waaye du doon man di des ci sama dund miir bi dootuma ko jéggeeti ñett yi boo ko xasee def ci tuub rek yàlla jéggal na la yàlla ba ku baax la ndax moo tuddee boppam ne innahu huwal barur rahim moo tax bu tuub laajoon nañ ko xaadimu rasul mu nirale ko mu ne ak see safara mu ne tuub daal fekk amut melokaanew see bopp safara yàlla nangoogut ko luy see bopp safara xam nga ne see bopp safara moom ku sob ba tëb dugg ca dese nga beneen tëbin tëbin gi nga dese nag mooy iqlaaxu buddeeku ku tëb ci moom ba dugg ci see safara da nga tëbaat xaw ngay tëb daal yi fale waaye moom tëb moom da nga dese nga beneen tëbin daal tëbin googu nga dese nag mooy buddeeku baxi lu bon li nga nekkoon ñaareel ba see bopp safara ku ca dugg ba xas génn da nga ci lu toxoon nga dugg ci ñetteel ba séeboobu safara ku ci dugg ba xas génn ba réccu xaw ma ban séebu ngay duggaat waaye doona doon bii tuub tuub nag bu amee ñetti melokaano yooyu xaadimu rasul nee na yàlla nangu na tuub ga ñeenteel ba ca boroom xam-xam ya yokk mooy dabaatal su fekkee ne dangaa nekkoon ku doon nekk di nekk ci àll bi taxawaalu faat ay waxtuy julli faat ay koor faat maanaam lu bari gaawal nga dabaatal na gannaaw bi nga tuubee say julli ya nga fexe ba fay ko niñ koy fayee téere bi dana la ko jàngal si koor yooya faatoon la nga fexe ba fay ko nga seet bi nga mësoo rek léegi li nga sànq ci ay farata yàlla yoo xam ne danga nekkoon ci àll bi di saata gaay nekk ci ay caaxaan di doxal sag ndaw ba nga mujj nag bëgg a tuub su boobaa tamit seetal yooya ñu waroon a def yépp nga di ko fay nañ koy fayee boo ñu toppee ci téere bi incha allah danañ ci si su ko defee kon nag tuuba ngooku su fekkoon nag tey ki nga tooñ sa morom la ba tey da nga réccu lu nga tooñ ko danga bàyyi tooñ nga ca saasa dootoo ko danga tu mukk tamit nga waat ko ba ca tegu tamit mooy nga dabaatal su fekkee ne danga ko tiriyaa woon alalam demal nga delloo ji ko boo sàccoon alalam muy xàqam demal nga jox ko ko su fekkee danga ko tooñ woon ci jëw ko mbaa nga xas ko mbaa nga rambaaj ko demal ba gis ko boo ko gisee nga ne ko sëñ bi baal ma àq waaye nag boo koy baalu àq bul ko leeral li ngeen jotee woon loolu xeetu yonentu yàlla Muhammad rekk la ko yàlla jagleel yeneen xeet ya ko jiitu woon ku tooñ sa moromam nit soo koy baalu xaq danga ko wax ne ko baal ma dama laa jëwoon baal ma dama laa fenaloon baal ma damaa damaa jote woon ak sa soxna waaye xeetu yonantu bi loo nit ki ameel àq soo koy baalu boo ne ko baal ma ci tooñaange yi dox suñu diggante bu ne la baal naa la rek dugal na lépp loo xam ne ni yéene woon nga ko pour baalu ko jërul nga di ko ko leeralal ndax xeet wi xeetu sutura la xeet wi xeet la woo xam ne dañoo mooñaale ak sutura bëgguñu suñuy bon bon yi ñëpp di ko xam kon nag kon boo tooñee sa moroom gannaaw bi nga defee ñett yi demal nga dabaatal bu dee xalal nga jëloon moom fokk nga delloo ko soo ko delloo ba pare nag moom door koo baalu àq su dee nag wax joo xam ne moom loo waxoon lu ñaaw ci moom la man nga koo baalu àq saa nga leeralal ko li nga waxoon ci moom kon nag yooyu mooy sartay tuub mu teg ci ne wala yexilu du dagan lëxoo ñeel mu kallaf an yu axira muy yéexe a tawbata tuub ga ah yaa ngi xam bàkkaar nekk fi di yéexamtalu xamoo kañ ngay dee bàkkaar kay boo koy xam gaawal gaaw nga lagg dem tuubi sa borom moom ku baax la ku yaatu la ku tàllal ay loxoom ñëpp la ku ñëpp xaj ci moom te moom xajut ci kenn la su boobaa bu fi nekk naan man kay duma mën a gum tuuba gum léegi ndax man ngaa dee léegi yóbbaale sa bàkkaar yi te kon bu la ko jéggalu nga dem safara kon nag gaawal rek nga fexe ba tee ñett yi réccu yéene na doo ko ci dellooti te nga bàyyi la nga nekkoon kon bul yéexe tuub tuub kenn du ko yéexe bokk na ci yi ñu war a gaawe yonentu dafa waxoon ne ata ani minallaahi wala ajalatu min ashaytaan mu ne teey def nànk daal ku koy def yaa ngi ànd ak yàlla yàkkamti përëx-përëx yi nag koo ko gis nit ki di ko def mi nga ànd ak seytaane waaye setti nañ ca lu mat juróom-ñetti yëf ne bëgg nañ ku ko gaawee juróom-ñetti yooyu fay bor ci la bokk boo lebee nit ki xam bor gaawal fay ko juróom-ñett yooyu xam gan ganale ko ca la bokk soo amee gan bu ne cëpp ca kër ga bu fa ñam nexee gaawal jox ko bu ko laaj kañ nga bàyyee koo foofaat nañ nga defoon nag di seet ba xam añ na ci àll bem déet andil ko ñam rek juróom-ñett yooyu gaaw boo xamee bàkkaar lagg gaaw dem tuubi tamit ca la bokk waaye walaa yaqula bu mu wax ne xattaa yahdiyanii ba ta jubalee ma allahu yàlla toog rek téye sa bakkan di font naan ax ah, man de yàllaa ma xoowut ci boppam rek comme ni ko ñu bari di waxee ah man su ma yàlla baaxaloon ma baax yàlla ma baaxalul rek fa innahu naka kàddu googu koo dégg mu koy wax na la wóor nekk na ci moom min alaamati shaqaa yi mandargaay texeet di texeet di nag mooy ku jëm safara nekk na ci moom wal xislaani geccal mooy ku yàlla seetaan nekk na ci moom wa tamsil basirati far gisab xol kon toog naan suma yàlla jubalee ma jub te jéemoo fàggu njub jéemoo fàggu lu baax koo dégg mu koy wax ñett yi mi ngi ci yow mandargaay texeet yi mi ngi ci moom màndargaam geccal yàlla seetaan ko ñàkk koo defe waxati ma ngi ca moom waaye tamit gis-gis xolam bi nga xam ne moo doon gis lu baax da mujj effacé wu tamit mi ngi ci moom tamsil basira muy far gisab xol mooy nit koo gis ba mu juddoo dafa juddoowaale xol bu set wecc moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne kullu mawludin yuladu ala alfitra kuñ jur ku ne dañ ko jur ci set fooy fooy balandal la ñëpp indiwaale boo xam ne binduñ ci dara amul benn tache soo demee na ba xas masóor góor nga wala jigéen nga bàkkaar bi nga njëkk a def day sombeeku to day soppeeku tomb bu ñuul ci sa xol soo ko tuubut defaat bàkkaar muy gën di yokk nga defaat bàkkaar muy gën di yokk nga defaat bàkkaar muy gën di yokk day dem di dem ba tomb bu ñuul ba mujj lekk lu weex lépp su ko xasee lekk nag jeex na kenn mëntu laa waarati déglu ay kasetu caaxaan def ki sa xaalis moo lay gënal bi maanaa déglu waxtaanu wu jëm ci wàllu yàlla ki lay woo di la wax dëgg day mel ni ay jaasi la lay dóor doo ko bëgg a déglu ku lay jay rek yaa fi man yaa mel nii ngay tiitaru loolu rek maanaam mooy li la intéressé ñooñu la yàlla di wax ne kallaa bal raana ala qulubihim maa kaanoo yaktibuna jógi nag musiba ko lu bon la kooku nag koo dégg mu koy wax naan yàllaa ma jubalagut moo tax jubuma su ma yàlla jubalee ma mel ni ñëpp xamal ne xolam ba lu ñuul laa ngay lekk lu weex la kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax duhut waxi caaxaan bu ko kenn di foyeti te bëri na lool ci ñi nga xam ne ay waxa boole lañ wàccee tubéy solt kabam gannaaw yàlla ma xoogut ci boppam nangam ak nangam waxa boole waxambaane baax na mais waxa boole lu bëri ñoo ko yàq moo tax mu ne walaa yaqula bu mu wax xataa yahdiyani ba ta jubalee ma allahu yàlla fa innahu naka loolu min alaamati shaqaay bokk na ci màndargaay texeat yi wal xislaani ak jecci wa tamsil basirati ak far gisab xol mu des nag yi nga xam ne mukallaf war na koo wattu moo tax moom lay teg ci ni ne waye jibu dana war alayhi ci mukallaf xibsu lisaanihi mu wattu aw làmmiñam gis nga làmmiñ la njëkk a tudd yi ñuy mooyee yàlla yépp moo ci gën a dansire ñi xëpp ci nit ñi bu ñuy dem safara seen ngóobit làmmiñ mi leen yóbbu safara wax lu la xóorut fen rek foo toll yaa ngi jëw yaa ngi xaste yaa ngi rambaaj dëgg mënoo koo wax ah loolu koy amul benn problème sotti na fekk na dara du ci dëgg noo jëflante nit rek yaa ngi seet noo def ba génn ci rek waaye fekk na la nga koy wax moom ma ngi ko gëm fekk li ngay wax yow dara newut ci yow ci dëgg mbooleem jikko yi ci gën a yées mooy fen te làmmiñ koy def làmmiñ moomu garaaw gim garaaw moo tax xukkamaaw yi di wax ne saxiirul jarmi mais kabirul mi mun a jëmmam dafa tuuti mais tooñaangeem dafa rëy li tooñaangeem rëy tax yàlla wutal ko ñaari miir miir bu njëkk bi mooy ay tuñ tànka mab buñ yëngatu làmmiñ du wax ñaareel ba mooy ay bëñ tànka déplacé wuñ làmmiñ du wax xoolal fa ko yàlla denk ni mu ruqee ñaareel ba garaaw gi làmmiñ garaaw a tax cër mu dend ak yépp bokk ak moom bopp ñaar lañ làmmeñ rekk moo ñëw di benn seetal mook mook bopp mook nopp ñoo bokk nekk ci bopp noppi di ñaar bët noonu di ñaar ay tuñ di ñaar paxi bakkan di ñaar ay bëñ di ñaar yiy féetee kaw yiy féetee suuf lépp loo gis mu nekk ci bopp ñaar la làmmiñ rek moo ki ñëw di benn moo tax bi alquran di wax dafa ko tudd ne benn la na ci allam naj'al lahu aynayni ñaari bët la wax wa lisaanan waaye waxul wa lisaanayni de waaye mu tekki ne wa nii kon gis nga ko làmmeñ dafa ñëw di ñaar yam dend ak yépp di benn li ko def am na ñoo xam ne seen benn làmmeñ woowu feeñ nañ ci fenn wu xaw tukkal àdduna jaxase jaxase nañ ci ak mbokk ko xaw a tukkal àdduna ña ngi cay xaste ña cay jëw ña ngi cay rambaaj ña ngi cay jaxase ñoo ñooña suñu xamoon ñaari làmmeñ tukkal ñaari àdduna te koom ñaari àdduna xamul nag wenn làmmeñ doy na moo taxoon Aboubacar ku ragal làmmiñ la benn bis mos na toog tëj ci làmmiñam bi di ko mbugal Omar ibnu Xataab bett ko ne ko Aboubacar lu la xiir ci lii mu ne ko xanaa xamoon ne musiba mu ma man dal sama làmmiñ moo ma ko yóbboo Aboubacar dem boole koog Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko Aboubacar day war ngaa wax ci moom fekk naa ko daal ma ngay mbugal làmmiñam wa xeetu mbugal wu nekk mu ne ko ba muy wax loolu rek fekk na fa benn saxaaba mu ngi toog bu ñuy tuddee maanaam saadu sax du laaj yonantu bi ne ko kon ñun li ñuy wax ci suñu làmmeñ nii bu ëllëgee yàlla dafa ñu koy mbugal yonantu bi ne ko dëgg-dëgg sax du yaa féex sakkalat ka ummuka waxal yakubu naasa fi naari ala wujuhihim illa xasaayidu alsinatihim yow daal yaa féex dëgg-dëgg xanaa xamule ne nit ñi ñu ciy dem safara li ci ëpp ñépp seen ngóobi ci làmmiñ ma leen yóbbu safara téeméer bu ñu demee safara ci misaal juróom-ñeent fukk yaak juróom-ñett ñépp la leen yóbbu safara mooy lu ñu wax ci seen làmmiñ ca fen ci jëw ci xaste ci rambaaj ci jaxase mbokk ci nëxal ab diggante ci yàq ñoo xam ne dañoo waroon a àndoo kon làmmeñ nekk na loo xam ne lu garaaw la keroog loolu la yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam wax maanaam saadu kon nag mu ne mu kalaf bi war nay wattu làmmeñam minal faxshaa ci ñaaw téef sa làmmeñu bu ci tudd lu ñaaw wal munkar ak lu xaraam munkar mooy lu bon loo xam ne bëgguloo kenn teg ci sa bët dafa ñaaw ba nga xam ne yaa ngi koy nëbb lu xaraam loo xam ne bëggoo kenn gis ko bëggoo kenn dégg ko moo tax mu ne woyegi bu daana war a àll ci mukallaf xibsu lisaanihim wattu aw làmmiñam inal fasaay ci ñaaw téef wal munkari ak lu xaraam luñ fakk luñ loo xam ne bëgguloo kenn yët ko wal kalaami ak wax xabiix ju bon kalaamu xabiix nag saagaa nga ca xastee nga ca gaaral nit ki ma nga ca yooyu yépp ci kalaamu xabiix la nit day wax wax ju rafet bu wax ju rafet jeexee mu noppi moo taxoon yonentu bi sallallahu alayhi wasallam daan ñu wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw li yasmut aw li yasmut bi maanaam wal yasmut képp ci yéen ku gëm yàlla gëm bisab dekki ba gisab fay ba àllaaxira nay wax lu baax bu lu baax jeexee mu noppi lu baax sax kee mënu koo jeexal mais la nga doon wax ci lu baax bu jeexee nga noppi la bëgg a wax kon bëggut a wax ne na wax lu baax mbaa mu noppi kon day mel ni wax lu baax ak noppi ñoo xam déedéet wax lu baax kay gën noppi téeméeri junne yoon mais bu sa loolu baax li mu doon wax rek jeexee noppil bu ca tegati dara su ko defee kon loolu lu jara bàyyi xel la kalaamu xabiix bokk na ci gaaral nit ki toog ak nit rek bëgg koo xas wu ji ngeen walla bi maanaa ay dëkkandoor ngeen walla ay doomu baay ngeen wala lu kenn xamut danaay wax ne li ëpp ci doomi bàyyi jamono gi doomi bañ lañ nga toog naan ko man de xawma kan waaye sama bàyyee ma jur loolu kay boo ko waxee gaaral nga ko wan ko ne ko sa baay jurul la yow wala nga ne ko man de sama doom ji dafa juddu ci yoon fekk yaa ngi koy gaaralee koo xam ne nii doomam judduwul ci yoon ko kàddu gu ñaaw la taxaw tamit di xas nit ki naan njaaloo kat la sàcckat la nii la mel nii la mel di jël sa làmmiñ di ko boyal ci deri gor ñi loolu lu bon la moo tax yonentu bi ne képp ku xaste suñ ko jàppee mu ami seede dañ koo war a caw juróom-ñett fukki yar xaste du euh, maanaam simple ci lislaam xas nit ki dañ laa war a yóbbu ki jumaa mbaa jàkka taxaw la caw la juróom-ñett fukki yar moo ngi naan sàngara ñoo xem xatte xam nga ne kon lu xem ak naan sàngara ci géttéen loola rëy na ku naan sàngara màndi nga màndi mandiwoo nañ la caw juróom-ñett fukki yar ku xas ab gor maanaam nañ la caw juróom-ñett fukki yar kon nag loolu bon la nit nay wattu làmmiñam ci wax ju ñaaw wattu làmmiñam ci xaste wattu làmmiñam ci gaaral lan ko naroon defee nga soppee ko jéggalu yàlla nga soppee ko jàngaxal quran nga walbatikoo ko def ko julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak la ci aju ba ca tegu war nay bayi wa ay maani talaaqi ngën ci passé ngën ci passé nag ñaari maanaa la am mooy rek ngëñ ci lu duhut yàlla la bëgg a wax ngëñ ci lu duhut yàlla ci ngën ci passé la taxaw wax ak nit ki ne ko gëñ naa ko ci sama bakkanu doom boo ko defee def nga lu xaraam te bokkaale nga yàlla bokkaale gu ndaw la nag gëñ naa ko ci maanaam sama buum ak sëy gëñ naa ko ci sama gañoog baay yooyu yëpp dafa xaraam kuy gëñ da gëñ ci yàlla bu jeexee nga noppi waaye xamoo droit gëñ ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak li muy foor foor xamoo droit gëñ ci benn sëriñ boo gëm ak lu muy foor foor ñaataa fi gëñee seen sëriñ yi loolu lépp bokkaale la Omar ibnu Xattaab nee na yonentu dafa ñoo fekkoon ñiy gën ci suñuy bàyyi mu nañu man kaana xaalifan fali yaxlif billaahi aw li yasmut kuy gëñati na nga gën ci ki bind sa baay bu jeexee nga noppi kon gën ci ab yonentu xaraam na gën ci ab sëriñ xaraam na gën ci sa njabootu doom xaraam na gën ci sa gañoog baay xaraam na gën ci sa buum ak fase maanaam ci sa buum sa buum sëy xaraam na kuy gëñ gëñal ci yàlla bu jeexee nga noppi kon ay maanu talaaqi loolu mooy menn maanaama ñaareelu maanaama nag mooy nit koo xam ne am na jabar ba pare dem fekki ab xaritam wala mu toog rek ñu nettalil ko ab xaritam lu ko jabaram def yónni na ko ndox mu yéex koo indi wala wax na ko jabar ja tontu ko wala bëgg na koo wax dara jabar ja song ko moom mu taxaw de billaahi gëñ naa ci yàlla ne man de sama jabar bu ma defoon ma fase ko wax nga lu de loolu nga wax bis bu la ko sa jabar waxee wala sa jabar def la ko fase ma moom tàbbi na bu ngeen sëyatee njaalo la ndax danga koo xajoon te la ko xajoon bu caqasee xéeg rek dañ cee xajji fase ma kon gën ci fase du lu simple de nangam de bu ma ko sama jabar defoon billahi ma fase ko nangam de bu ma ko sama jabar waxoon ma fase ko sa jabar wax la ko mbaa mu def la ko fase ma tàbbi na boroom xam-xam yi nag wuutee ci ke xamagut xaw ma ne xamut benn xamut dara toog rek lekk maanaam lekk ba suur nettali na ko diw de ah, li ko jabar ji def mu ne ah kooku dafa am fayda billahi su ma ko sama jabar defoon ma fase ko waaye fekk moom xamagut ñu ne kooku tamit bi maanaam bu ko waxee waxi font lañ ko jàppee duñ ko jàppee muy fase ndax lu tax ñu ne bala ngaa mën a dagga ak buum day fekk nga xam buum ku xamul buum kay mën a dagg buum waaye nag boo xasoon xam buum muy muy buum ak say sëy ba pare nag su boobaa nag nga aj ko ci dara su boobaa buñ ca xeggee rek fase ma tàbbi na kon buñ ko ajee ci dara buñ ca xeggee dañ koy dañ ko cay ajji suñ ko ajee ci luñ xamut moom dañ koy teewal ca ca teew teew ba ca saasa taxaw wax sa jabar ne ko sama baay bu newut aljana fase naa la kooku moom ca saasa ñàkk nga soxna ndax sa baay nekk gi mu nekk aljana mbiram xay bu la xamuñ ko diw de bu texewut fase naa la kooku xamuñ ko dañ lay ñàkkaloo jabar ca saasa waaye boo ko xajee ci luñ xam nag ni ki bu tawut suba ni ki maanaam bu nàngam ñëpp si suba wala boo dëggatee kër diw wala boo waxateeg diw wala bu ma la gisatee nga jëflanteeg jiw wala boo bokkatee ci natt sàngam nga wax ko bu ko xasee def rek nga xaj ca fase bu ko xasee def rek fase ma tàbbi na kon nag koo xamul xam-xam warul yéegal fase ci lu ñuy xaj ndax bu ca yeggee fase ma tàbbi na nga fàtte ko mën naa xam continuer wala yaa ko tey di seeg sa soxna fekk dangeen ngeen di kon nag loolu jar a bàyyi xel la moo tax mu ne wa ay maani talaaqi ak ngëñ ci fase bokk na ci yi ñu war a ba wanti xaaril muslimi gëdd jullit ab jullit kenn du ko gëdd jullit da ngay wax ak moom wax ju nooy rawatina eh, jullit ba bu dee ab laajkat nga ne waaye kii moo mën a yalwaan kii moo mën a saraxu ba bëccëg di lambar lambari yi laaj rek kooku baaxut de sarax ko soo ko mënul nga noppi moo tax yàlla waxoon yonentu bi ne ko wa amal yatima falaa taqhar mais wa saa saaila falaata tanhar bul di gëdd jirim bul di bul di maanaam gëdd ki nga xam ne laajkat la boo amee jox ko soo xamut nga noppi loolu na bu ko waxee yonentu bi ñun la ko bëgg a wax ñu bàyyi ci xel mbindeef yépp ñi ci gënoon a boñ seen jamono mu doon Firawna ñi ci gënoon a baax seen jamono mu doon yonentu yàlla Muusa Firawna la muy bon bon ba yàlla yónni Muusa ak Haaruna ci moom dafa ne bu ngeen demee wax leen ko wax ju nooy nit da ngay wax ak moom wax ju nooy wax ju nooy lu ne mën na ko moo tax mu ne wa quulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yaxsha kon nag ki gën a bon ci nit ñi bu yàlla yónni ki gën a baax ci nit ñi ci jamonoom ne ko wax leen ak moom wax ju nooy kon xam nga ne wax ju nooy xam na solo ba ca tegu yàlla waxaat nu ci alquran ne yéen nit ñi laay wax ak wax leen wax ju rafet ci nit ñëpp wa qulu li naasi xusnan dee leen wax wax ju rafet la ca gën a yéeme dafa wax ne wax leen wax ju rafet ba pare door a wax ne wa aqimu salaata bu ngeen waxee wax ju rafet ba pare ngeen door a dem julli ji kon nga déggee ca ne dangaa war a rafetal sa làmmeñ ñoŋeel ko xas ci bañ cee xaste bañ cee gaaral bañ cee fen bañ cee jëw bañ cee xaste door a dem julli ji waaye baxee koo ca jàkka ja boyal sa làmmeñ ci dere gor ñi la nga jëlee woon ci jàkka ji lépp yàqu na boo lëggee boo ko danga koy faye ba pare sa ngi lay topp waaye xoolal yàlla mu ne wax leen rafet ba pare door a dem julli ji kon loolu lu xam lu xam solo la lu jar a baxee xel la kon jullit kenn du ko gëdd wa ihanatihi ak doxadal ko ab jullit kenn du ko doxadal nit ku nekk bindab yàlla nga war a xool ci moom la mag ma waxoon mu ne man bañ yombut ma ñu ne ko lu tax mu ne nit ku nekk liggéeyab yàlla lay xool ci moom nit nag booy xool liggéeyam yàlla ci moom doo ko mën a bañ kon nag bul doxadal kenn bëri na koy doxadal di ko xeeb fekk moo la gën ci yàlla bëri na koo xam ne yaakaar nga ne yaa ko gën fuuf ngir sa aw askan wala nga foog ne yaa ko gën ngir sa njàng wala ngir nga foog yaa ko gën sa ndomba tànk te fekk moo la gën kon bul doxadal kenn bul xeeb kenn bul gëdd kenn mën ngay gëdd kenn wala ngay xeeb kenn wala ngay doxadal kenn fekk na kooka bokk na ci góor yàlla yi kon loolu dafa jar a bàyyi xel te euh, loolu lépp yàlla danay jël melaw di ko di ko solal nit muy wër di laaj wala muy wër di jaxasoog nit ñi nga gëdd ko mbaa nga yedd ko jaadat bi ko yàqu dootoo mën a defarooti mukk sa julli ak xoor yi dootu mën a defat dara kon nag kooy dajeeg jàppal ne mooy waaja bu yàggee nga dajeeg waaja waaye koo gis rek xeeb ko ngir yéreem yu sagar ya ah dana bëri borom ñaari sagar yoo xam ne lu mu gëñ dogg ko ci yàlla loolu dana am wa sabbihi ak saaga ko ab julit kenn du ko saaga te ku saaga nit ki yaa saagalu say waajur yonentu bi nee na bàkkaar yi ci gën a mag bokk ci nit kuy saaga waajuram saxaaba yi ne nit ni muy toogee di saaga waajuram mu ne ah kay mooy mu saaga waajuru jàmbur ka fayu su boobaa moom moo saagalu waajuram kon nit ku fonk yaayam mbaa mu fonk baayam du saaga waajuru jàmbur bokk na ci bàkkaar yi gën a mag moo tax sax xadis bi ñëw ne sababul muslim fusuuq saagawanteeg jullit ko gën a topp la ak mbon la kon saaga baaxut wa taxwiifihi ak ragalloo ko fii xayri xaqin ci lu duhut dëgg shar'iyyin bay ko jug yoon nit ki boo koy ragaloo ragaloo ko dëgg yàlla ji rek waaye bu ragalloo kenn dëgg joo xam ne maanaam luwaa boo xam ne ay nit ñuy xelaat ñu mën a juum ñoo ko fi tëral waaye boo koy ragaloo ragaloo ko ne sharia bii yàlla wàcc ci yonantu bi dañ ci wax ne képp ku sacc dañoo war a dog loxo bàyyi ko xel kon ci sàcc sharia bii xàtti na képp ku njaaloo te amagoo soxna dañ laa war a yóbbu ci jàkka dóor la téeméeri yar soo ko defee fekk xam nga soxna dañ laa war a yóbbu ci jàkka gasal la maanaam am pax dugal la ca sotti la ay xeer ba nga dee ñaata néew fii dox loolu nga ragal loo ko ko mu mën koo bàyyi kon ragal loo ko yoonu sharia mais bu ko ragal loo lu dul yoonu sharia naka noonu ragaloo nit ki tamit bokk na ci soxna si bu nekkee euh, jëkkëram bu dara manqué ci kër ga bu mu ko ko ragalloo nag ko waxee ci xibaar bu rafet jabar ji tamit jëkkër ji tamit di wax ak soxna si ci waxin woo xam ne wu rafet la waaye xam na ñoo xam ne bala ñoo xam lu leen neex rek ñu yóbbu sa fit wi kooku baaxut nit ki yekk sa jëkkër mu toog di wirdo nga taxaw ne ko yaa ngi toog yaa ngi wirdo rek waaye saa ko ceeb bi jeex na de kooku fit wa dem na nekk fii di wirdo rek waaye gaas bi jeex na de loolu yóbbu nga fit wa su boobaa nag kon danga ko war a waxee waxin woo xam ne wu rafet la kon nag yooyu ni bàyyi ci xel wooyu yëpp dana war a xale ci mukallaf xifsu basarihi wattu wattu gisam xanaa nasari walis lu xool ilal xaraam jëm ci lu xaraam ab julit war nay jël bët yi ko yàlla jox muy ak leer gum fayut benn facture mu fexe ba cay xool lu yàlla gërëm sante ko yàlla mi yàlla mi ko ko jox bañ cee xool lu yàlla gërëmut mën na caa xool kaamilu alquran mi nga xam ne yonentu nee na ñeent ngi nii boo koy xool ñu bindal la yool mu ne alxuraan boo koy xool donte jàngoo rek ñu bindal la yool kaabak yàlla ga boo koy xool donte wëroo ñu bindal la yool say waajur soo leen xool donte yëkkati ko dara jox leen ñu bindal la yool boroom xam-xam boo koy xool xool màggal ko wekk ko ñu bindal la yool kon nag yu yooyu baril xool bañ a xool ci ñuy fecc bañ a xool ci ñuy fo bañ a xool ci ñuy moy yàlla bañ a xool ci lu ñu desee wala ñu def ko ci fenn lu ñaaw di ca génn ñu génnee seeni awra loolu dafa xaraam ak jullit warut koo xool moo tax mu nekkoon kon say bët yi wattu ko nga ciy xool lu yàlla gërëm bañ ci xool lu yàlla xaramal wala yexilu du dagan la woo ñeel mu kallaf an yanzura muy xool ilaa muslimin ci jullit bi naxlatin ci xoolit tuufihi gug dana lor ko jël ab julli romb la nga koy xool rek am na ñoo xam ne dañoo mën a mën a xoole ba dañ lay xool ba boo doon dox sa sa tànk yi dana mujj jaxasoo kooku baaxut xool buri lore bokk na ci nga tabaxee sa kër gi façon tabaxin woo xam ne kër gi nga jàkkaarloo yaa ngi leen tiim bu ñuy lekk nga leen di xool bu ñuy tëdd di féexlu nga leen di xool bu ñuy sangu sax mën nga leen a xool loolu lépp xool guy lor la kon moo tax ñi war a bàyyi xel ci plan wu tabaxin yi ban di ci lorante kon nag xool guy lor jullit dafa nekk loo xam ne lu bon la kon loolu nañ ci bàyyi xel moo tax mu ne dagganut ci nit ki muy xool xool boo xam ne da koy lor ñu ne faw mu ne ah ilaan yekkoon rek mu nekk faasixan di ko génn topp ab kàccoor kooku sax waxuma la xool mais fa yejib dana war hijraanoo tong ko faasix mooy koo xam ne day def bàkkaar yu mag yi di ko feeñal ngi sàcc di ko ndamoo di njaalo di ko ndamoo di fen di ko ndamoo di xaste di ko ndamoo lu ñaaw lu nekk ma ngi koy def kooku kay waxuma la xool mais soo ko manee nga man koo xoo waar ko ngir mu mën a baxi lu bon li muy def wala nga yóbbu ko ci xaakim eh, maanaam ñi mën a fudd ndigam teg ko ci yoon def ko su fekkee mënoo ko nag nga wala nga xam ne boo ko waxee du jariñ dafa féttéerlu kooku moom bako bu ko sax jëflantee teg moom bul àndatoog moom melal ni ku ko xamul ndax kat bala laa jikkoom ju bon ja mu wàll la ko moo tax mu ne kooku tong ko rek bako way jib dana war xale ci mukkalaf xibsu jamii jawaari yi mu wattu mbooleem ay cëram mastataxa kem kattanam juróom-ñaari cër yi la yàlla sédd benn bu nekk nga da cay def la ca yàlla bëgg sa bët yi xool ci lu yàlla gërëm sa làmmiñ wii wax ci lu yàlla gërëm sa biir bii dugal ci lu lew bañ cee dugal lu lëw te fekk lewut sa pëy mii jox ko ku yàlla wax la nga jox ko bañ koo xeñ ku la yàlla jox fan nga ko ko jox sa loxo yii téye ci lu yàlla gërëm bañ cee téye yàlla gërëmut sa tànk yi dox ci jëm ci wuy ji jàkka wuy ji conférence ya wuy ji jotaay yi yàlla gërëm bañ cee dem ci lu yàlla gërëmut sëñ Mama Sàmbe Mbàkke daana wax ne mën a dox baax na mais dox ci jëm ci lu baax moo baax waaye mën naa dox lu ñu wax nga ne acca nañ dem bala ngaa dem dangaa war a xam ci li ngay war a dox yi lan la kon nag yooyu yëpp dafa nekk lu jar a baxi xel ba ca tegu euh, wa an ba muy bëgg lillaahi ngir yàlla wayab xuda muy bañ la xoo ngir yàlla booy bëgg nit ki bëgg ko ngir lim bëgg yàlla booy bañ nit ki bañ ko ngir lim bañ yàlla waaye bul bëgg nit ki mukk ngir rek lu lu bon lu mu xam ne dafa ko man nga bëggee ko ca noonu te fekk loola yàlla gërëmut ko léeg-léeg sax ni ki ko bëgg ba bënnee nopp jaaroo noppam nga bënn ko di ko toppandoor xam nga loolu baaxut góor warul takk jaaroo nopp mu takk ak ceen nga takk ceen góor warul takk ceen mu takk leneen leneen leneen nga takk ko kooku tamit baaxut kon booy bëgg nit ki bëggu ko ngir lim bëgg yàlla sooy bañ nit ki bul ko bañ ngir sa bakkan mais bañ ko ngir lim bañ yàlla wa yardaa nay gërëm lawoo ngir yàlla wa yarda ba muy mer lawoo ngir yàlla bul mer mukk ngir sa bakkan bul gërëm mukk ngir sa bakkan waaye booy wax waaw na fekk sa waaw gi dëppoog waaw yàlla sa déeréet tamit na dëppoog déeréeti yàlla wa yaamuru nay digle bil ma'rufi ci lu baax wa yanha muy tere anil munkari ci lu xaraam lépp lu bon nga tere ko lii nag warul ñëpp fardu kifaaya la digle lu baax tere lu bon war na boroom xam-xam yi wàcc ci nga xam ne xamuñ ndax ku xamut mënta digle warut boroom xam-xam yépp de war na ñi nga xam ne bu ñu waxee ngi déglu leen waaye warul wàcc ñi nga xam ne bu ñu waxee kenn du leen déglu waaye war naa ñi nga xam ne bu ñu wane woon tey buñ ne nañ kenn du fi feccee ñi faat bakkan kooku warul digle kon nag ñii la war waaye ñeeti mi la wàcc ñi bàyyi ci xel nag Euh, wàccee digle lu baax tere lu baax nag digle digle lu digle lu baax ak tere lu bon lu xam-xam solo lu ci man ci góorgóorlu na ko def tàmbalee ko ci sa njaboot ci say doom sa jëkkër sa soxna say dëkkandoor loo ca mën nga def ko moo tax mu ne wa ya'muru nay digle bil ma'rufi ci lu baax wa yanha muy tere mun kër ci lépp lu xaraam lii nag ci laay tëjee ci nga xam ne mooy li xaraam ci mu kallaf moom laay bëgg a ñëw nii wax ko nag daal di delloo leen kàddu gi li ngeen ci am ngeen mën ñu koo dolli ay jikko yu bon la ñu war koo ba moom la bëgg wax si nii mu ne wa yaxrumu dana xaraam alay ci mukallaf alkasi bu fen gis nga ko moom la njëkkee jikko yëpp fen moo ci gën a xées nit ki bu capable pour mën a fen capable na pour def lépp moo taxoon benn waaye bi ñëwee ci yonantu bi tuub ku dëggu la nag ne nag li lislaam tere lépp mënuma koo bax tànnal ma ci benn ma ba ko waaye lépp mënuma koo bax yonantu bi ne ko fexeel dimbale ba ba fen waaja bu demee bëgg naan sàngara bëgg a njaaloo bëgg a def loolu ne ah su ma ko defee kat dem yonentu bi ne ma loo def tey ma wax ko lu wuuteeg lii fen naa te tere war na ma ko su fekkee wax naa ko ko tamit danaa ci xam kersa mu mujj ba ba ba naan sàngara noonu la mujj def ba bàyyi sàcc noonu la mujj def ba bàyyi xeeti bàkkaar yépp mu ñëw ci yonentu bi ne ko daal yow benn buntu rek nga ma tëjal bunt bi nga ma tëjal mujj tëj buntu yépp bunta fenn bu xasee tëju ci nit ki buntu yépp yu bon yi day mujj tëju ci kanamam waaye bunta fen bu xasee tijjeeku ci nit ki bunt yépp day mujj tijjeeku ci sa kanam moo taxoon yonentu bi de sallallahu alayhi wasallam daan wax ne iyaakum wal kisba fa inal kisba di ilal fujóor wa inal fujur yahdi ilal naar mooy tandiku leen fen ndax fen du dañ di ñot di nit ki di ko bamax ba yóbbu ko ci ak kàccoor kàccoor du dañ di ñot di nit ki di ko bamax ba yóbbu ko digg safara kon nag fen nekk na loo xam ne lu bon la fen nag du dara lu wax lu dëgg rek lii rek mooy fen wax lu xamul daal mooy fen waaw dañoo gën a foorante nag maye nañ nag ñeenti fen maanaam nit kuñ bëggoon a lor jàllar bi buñ ko jàppee dàqe nañ ko yàq xalalam mbaa buñ ko jàppee faat ba kanam ñu ñëw laaj la anamu nga sànni leen ci yoon ne leen mi ngi aw ndeyjoor fekk mi ngi jaar mooy woowu fen de dagan na baax na ndax loolu bakkan da caa xaju mbaa xalal fen wi nga xam ne tamit moom maanaam dañ ko dag baax na dagan na mooy ñaar ñoo xam ne dañoo meroo kenn ku nekk bëggut a gis moromam nga sol sa dàll juboo dem gis kenn ka ne ko wallahi sa waay laa jógee léegi aka laa bëgg ba bëccëg lu baax rekk lay wax ci yow mënul toog jotaay mukk sa tuddut la su ma sañoon daal li nekk ci yow lépp nga bàyyi ko aka laa bëgg moo ma yónni sax ci yow boo mënee am dara nga jënd ko guru wala dara ne ko moo la ko jox ngir baaxalu la àq demaat ca ka ca des ne ko sa waay laa jógee léegi aka laa bëgg fekk na nag kenn ñoom ñaar sax gisoo ci kenn waaye yow bi nga koy def dangaa jublu woon ngir bëgg rek ñaar ñu juboo kooku moom aw fen la mais lu baax la lu ci man nit na ko def ba ca tegu nag mooy fenal sa soxna kooku nag moom dagan na dañ koo sib maanaam di ko fenal rek bëgg mu gën laa bëgg moom kay maa ngi toppatoo ay projet bu sottee digg nañ ma fële ak kër digg nañ ma fële ab ab oto moom kay bu neexee yàlla bu ñëwee li ma la digoon lépp naa la ko ci def fekk feni kese kooku nag moom dañ koo sib waaye nag bu gënee bari sax gën a bon nu mu gën a baree gën a soof kon nag yooyu nañ koy bàyyi xel yeneen yi ci des yëpp nag ci fen yi baaxut wal ak jëw jëw nag saxaaba yi laajoon nañ ko yonantu bi ne ko waaw li ñuy wax ci nit ki su fekkee dëgg na nag mu ne loolu mooy jëw ah, diw dafa ñaaw ñu ne dafa ñaaw mu ne loolu nag mooy jëw waaye su fekkee ñaawut ngeen ne dafa ñaaw gannaawam boole ngeen fen ak jëw waaye li ngay wax ci nit ki buy dëgg su boobaa lay door a nekk jëw jëw nag ak a bon mbonam gi alquran mi ngi koy nettali ba koy niraleeg sa moromam nit mu médd nga tiim ko di ko lekk a yuhibbu ahadukum an yakula laxma axihi mayitan lu mu teg fa karihtumuhu ñaaw ak jëw yaa ngi koy xamee ci naa Fatima dafa mos a toog benn jigéen romb ko mu ne waay jigéen gii mbicca malaanam mi mu xoddoo ak a gudd lii rek la wax ndeke yonantu bi moom yàlla xamal na ko lépp mu xoo ko mu ne ko doom demal nga jéem a waccu mu ne ko naka laay waccoo te sama xel teeyut mu ne ko demal nga loocu mu loocu am lumbu wu génn ci moom wu ñuul kuk yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ne ko li ma lay jur jur ak li ngay nekk nekk sang jigéen ñi lumb wii bu reesee woon ci sa biir kenn mënu laa tere dem safara te yaa ngi ko jëlee ci jigéen gi la romb nga ne mbiccam malaanam ak a gudd tey nag li hëpp ci ñun rawatina suñu jigéen suñu añee jëw lañ koy reesalee suñu ndékkee jëw lañ koy reesalee suñu reeree jëw lañ koy reesalee mën a jëw ba nga xam ne ñett nit sax bu ñu àndoon tey kenn ka posetam wadd bala koo for ñaar nga nekk ca moom nangam ak nangam kon jëw nekk na lu bon nañ koy baxi xel lu bon a bon la ba ca tegu ca jikko yu bon ya wan na miimatu mooy rambaaj rambaaj nag mooy gis ñaar ñoo xam ne dañoo ànd jëkkër ak jabar la xarit ak xaritam ba la doom ak waajuram la ngay wax ak a dox ak a jëf lu yàq rek tey yaa nga fële ëllëg yaa nga fële nekk koo xam ne toujours yaa ngi yàq rek loolu jikko ju bon la ba ku ko jikkoo safara nga jëm yonentu bee ko wax ci xadis boo xam ne ñetti baat la xadis ba mu ne laa yadxulul jannata nammaamun mu ne rambaajkat dugg aljanna ku demul aljanna safara nga jëm moo tax mos naa dem ci ay xarmeel ne yàlla xamal na ma ne xarmeel yi ñaarang fi yàlla mu ngi leen di mbugal ñu ne ko kenn ki lim def ba yàlla di ko mbugal mu ne kenn ki dafa nekkoon koo xam ne bu tuuraan ndox daanul ferlu tuur ndox rek wesu dem julli ji fekk saw ma jeexut demal ba lépp jeex nga ratt ko ba lépp jeex dara desatut nga door a wesu door a dem julli ji mu ne ñaareel bi mooy koo xam ne nag dafa daan rambaaj ngi ni di dox di jaxase di yàq moo tax tamit ma safara kon jikko la joo xam ne ku ko jikkoo rek safara nga jëm ba ca tegu nag mu ne wal kibru mooy rëy rëy nag xéem sa bopp rek waaw xeeb nit ñi moo tax yonentu bi sallallahu nee na laa yadxulul janata man kaana fi qalbihi mithqala saratinil kibri mu ne aljaana moom du ko dugg koo xam ne ni vérifié nañ xol ba lu toll ni peppab zaratu nekk ci moom ci rëy ñaataa fi rëy ñi fal la ngay rëy foo ne yaa gën nit ñi yàlla jox la xam-xam ngay balbalu ci kaw nit ñi foo ne yaa leen gën yàlla jox la alal nga foo ne yaa gën nit ñi yàlla jox la askan wu rëy wu rafet nga foo ne yaa gën nit ñi kooku ku ko def ku rëy nga te ku rëy du dugg aljana moo waral rëy nag yonent bi firi na ko nee na ñaari ku muy sa jikko rek rëy nga mooy bañ dëgg ak xeeb nit ñi mooy rëy koo xam ne boo ko waxee dëgg day mel ni ab taawam nga ko rayal xam na nit ñoo xam ne mën nañoo wax dëgg mais bëgguñ ku leen wax dëgg soo ko waxee dëgg rek mu mel ni danga ko rey saa waaye dëgg dëgg neexul mais li nga nekk du dëgg soo ko waxee rek mu gis boppam kooku kum nekk ci yow dangaa ñaareel bi koo xam ne dangaa gis sa bopp ca kaw gis nit ñi fa suuf kooku tamit ku rëy nga ñaar ñii mooy rëy batarul xaqi waxamtu naas ñaar yi la ko yonentu bi firee kon rëyangoog ba ca tegu mooy wal ujbu ak xaaw mooy héem sa bopp loo def jàpp ne yaa ko fi dàq boo nekkee ab benn entrepreneur ku tabax kër gi nga ne ah kii maa ko tabax billahi li ma ci def ñu ne kii ah tabax yi dafa baax bi kay ni ma ko liggéeyee héem sa bopp jàpp ne yow raal yaa fi dàq tabax ci àdduna bi boo dee am mécanicien yaa ngay yéem sa bopp ci mën a defar oto ku ñu wax nga ne xamul dara naka noonu boo dee ab jàngkat yaa ngi yéem sa bopp ci xam-xam ku ñu wax nga ne xamul dara bu fekkee yaa ngi nekk tamit liggéey boo mën di liggéey rek yaa ngi jàpp ne yaay ke ko gën a xereñe yaay ke ko gën a man xéem ci sa bopp naw ci sa bopp xeeb ci keneen ku dul yow uj bu mu mooy xéem sa bopp mag ñi di koy firee xaaw ndax loolu day waral naagu naagu nag day waral daagu daagu day waral ñi raw la ba ca tegu mooy wari yaawu ngistal loo def bëgg nit ñi gis ko kooku nag yi gën a xées ki jikko yi la bari na kuy maye lool ñu ne diwa tabe rajo yi di ko ŋawti ŋawtee guddeeg bëccëg ni ngi naan diw ni manee maye fekk ngistal rek moo tax alxuraan daan wax ne bu leen yàq seen alal yi ci ñett laa tubtiloo sadaqaatikum bil manni wal adha kallati yunfiqu maalahu riyaa annaas yàlla ne na joxe xalal ñett rek moo ko yàq saa yoo dimbalee nit ki jàllar bi ko tofal ko kàddu ñaax ko yàqu na wala nga dimbale nit ki déggale ndimbal la koo xam ne moom mi nga dimbale bëggutoon kooka yëg ne yaa ko dimbale ah diw xanaa gisuloo xew bi buy jag gannaaw yàlla maa ko dugal sama loxo de maa ko ko lebal ci sama client ba nekk aslem maa ko defal nangam lu ne nga nekk wax te moom moomu ma ngi doon denc personnalité am bëggutoon kenn yëg na yaa ko dimbale soo waa yàqu na ba ca tegu nag mooy joxe ngir ngistal rek bu la nit ñi jox gisee nga maye bu la kenn gisut doo maye ngistalkat foo ko fekk la ko gën a jege du ca man dara lu ko sori rek lay man day nekk sàmba alaar moo waral yonentu bi daan wax ne yàlla dafa wax ci hadisul qudsi ne ana aghna shurakaaya ani ki mu yowmal qiyaamee ña doon ngistal ci julli ngistal ci woor ngistal ci joxe halal ngistal ci bëri yoonu màkka ngistal ci wax ju bëri boo lëggee day wax ne dem leen ca ña ngeen doon ngis talal ñi fay leen ñoo ngi duñu leen mën a fay ñi boole tàbbal leen safara kon nit ki lu muy def na yàlla tax wa sumaati ak ndéggtal ndéggtal mooy safaanam ngistal mooy loo def loo wax bëgg nit ñi dégg ko loo jëf bëgg nit ñi yëg ko soo sangoon daal nit ñi ci yow la ñuy xëy di wax ci yow la ñuy gontuy wax waaye waaye loolu lu muy jariñ kon nag nit ki li muy def na yàlla tax bu ko yàlla xasee seede jeex na bu ko yàlla xasee dégg bu ko keneen déggut jeex na kon ngistal ak ndéggatal jikko yu bon la ba ke tegu nag mu ne wal xasadu ak kiñaan moo gën a bon ci jikko yi iñaan nag boo ko doon définir mooy xéewal gu yàlla def ci nit nga bëgg mu baxee koo ci moom ñëw ci yow mbaa mu baxee koo ci moom jëm ci keneen mbaa mu baxee koo ci moom yàqu donte yow jëriñoo ko moom jëriñoo xut ko lii mooy xañaan xañaan moomu nag bokk na ci jikko yi gën a bon ndax contre yàlla la nit ku ne li nga xam ni mayoo ko sa bopp buy xam-xam mayoo ko sa bopp buy aw askan mayoo ko sa bopp buy xalal mayoo ko sa bopp buy ndomba tànk mayoo ko sa bopp yàlla la ko jox boo ko xañaane nit ki nag dafa mel ni dangaa wax ne yow yàlla dangaa juum kii warutoon a xam lii koo moo waral ku koy def dangaa kontur yàlla moo waral na mu nekk bal boo xam ne buñ dóor ci miir la min ka ilayka la yaa ko dóor waaye ci yow la jóyee ko ci yow la dellusiwaat moo tax saa yoo añaanee nit ki toujours yàlla da koy gën di héege yow di la gën di héesi léeg-léeg nga gis nit ki jeex léeg-léeg nga gis nit ki foo tollu yërëm ko foog ne dañ koo def dara fekk lam doon añaane moo del si waat ci moom moo tax danaay wax ne xeeti mooy yàlla yépp am na bànneex ba mooy iñaan njaalo li muy bon bon xam na bànneex naan sàngara li muy bon bon xam na bànneex sàcc li muy bon bon boo rawee xam na bànneex waaye iñaan moom safara wuy lakk sa xol la ëllëg mu lay juralaat safara moom bànneex ca lu bon la su ko defee nag kon lu jar a baxi xel la iñaan danaa ci indi xisa boo xam ne ulama wu tafsir ñoo ko indi boo demee ci ruhul bayaan fekk ko ca benn aalim dafa gisoon benn waaye daal jege buur bi lool buur bi bëgg ko lool di ko jox ay teraanga yu bay benn waay ñëw añaane waa ji lim jege buur bi dem ci buur bi ne ko yow haadi mii nga jegeel sa bopp ku la bañ la bañ na ko bay wax ne sa gémmañ dafa xasaw ma ne buur de nim réyee ku ne ko sa gémmañ dafa xasaw xam nga problème buur bi ne ko nu may def ba xam ne moo ma ko wax mu ne ko mën naa la ko xooxal léegi buy ñëw danga gis mu dëpp gémmañ ga waage ne ko kon waxal waa ji ne ko na ma wuy si une heure pile waa ji iñaan ja dem invité ku nga xam ne moom la iñaanee ñam woo xam ne dafa am soble soble xaaraan ñu lekk ba ci digg ba ba mu des daal vingt minutes mu ne ko fàtte naa buur mu ne nga wuyu ko une heure pile waaja yàkkamti presque ba raxasuwut galax ndikuwut dem rek wu ji buur ba di wax ak moom buur ba wax ak moom mu jël gémmiñ nga dëpp ko ca buur bi yëngal bopp bi ne ah kon ndeke liñ ma doon wax ci kii li ma koy jegeel sama bopp lépp ndeke nii la ma xeebee buur bi daal keroog dafa mer ba bind ci loxol boppam te buur bi musul bind ci loxol boppam lu dul muy maye waaye lu muy def lu dul maye bu koy def da koy bindlu waaye keroog dafa mer ba bind ci loxol boppam bind benn jaraafam leetar ne ko kii may ki lay indil leetar bi bu ñëwee rayal ma ko feesal ma ko jël der ba feesal ko ak xetax yónnee ma ko waaja jël leetar ba rek buur ba jox ko ko mu génn rek ci buntu pale bi rek ka ko iñaane fekk ko ca buntu ba ne ko waa loola buur wax mu ne buur bi rek moom moom bindal leetar bi mu ne ko moo ko bind ci loxoom mu ne ko moo ko bind ci loxoom nii te moom xam na ne buur bu bindee ci loxoom rek day maye mu ne ko waa may sa leetar bi mu ne ko leetar nuñ koy maye mu ne ko ah ma ko jox de moom moom di man mateeg waaja ba nangu leetar ba ci moom gis adresse ba jël ko dem ca dëkk ba adresse ba nekk mu dem jox ko jaraaf ja fa nekk kooko xool lettre ba eh, eh, firi ko jàng ne ko ah dafa ne naa la rey de mu ne ko du man de borom lettre bi la wax dafa am ci ku ma ko jëlee mu ne ko man de xaw ma ko moom lettre bi dafa ne ki indi lettre bi rek te yaa ko indi ray ko jël maanaam jëmm ja feesal ko ak xetax der ba yónnee ko buur ba ñu teg ay fan buur bi gis kam ray loxoon ko waa yow lu tax deewoo mu ne ko nu may def ba dee mu ne ko yow ñi wax ma ne yaa wax ne sama gémmañ a xasaw ba ma bind sama jaraaf bi lettre pour mu rayal ma la ba indil nañ ma jëmm juñ feesal ak xetax ma foo ne yow la mu ne ku la ko waxoon mu ne ko diw mu ne ko diw moom waxoon ma ko mooy ki nga xam ne dafa ma invité woon ñam wu am soble xaaraan may lekk ba ca digg ba mu wax ma sa audience bi ma dog ko ñëw wuy si la di wax ak yow ngir bañ bi maanaa sama gémmañ gi xasaw gi jël yegsi ci yow ma jël sama loxo bi dëpp ko ci léegi daal lii rek la woon fekk moom yàgg naa dénk buur bi ne ko ak ah, la def lu baax fay ko lu baaxam ku la def lu bon bàyyi koog lu bonam la buur ba nag fàttali ko lim ko doon jàngal kon iñaan bal la boo xam ne boo ko dóoree ci yow lay dellu siwaat jikko yëpp moo ci gën a yées añaan a ngoog moo tax yonent bi daan wax ne iyaakum wal xasada fa innal xasada yaakulul xasanaat kama taakulu naarul xatab mu ne mooy tandiku leen iñaan ndax iñaan day lekk jëf ju baax comme safara ni muy lekkee mat ba ca tegu ci jikko yu bon yi wal buux du mooy bañ jullit sa xol bañ nit ki sa xol mooy tey nit kii bu amee naqar yaa ngi ko koy jaale waaye fekk sa xol baa ngay tëgg tama ci kontaan xam na ñoo xam ne noonu lañ mel waaye waaye si gil ma sa sa njaboot gi sa sa ja kii nga xam ne moom nga wàññeeku waaye waaye damaa déggoon dangaa yàqule fekk na moom ma nga kontaan xol baa ngay kontaan bu lay wan ne ah, kii lii mënu koo ñàkk dal dafa iñaan kii lii mënu koo ñàkk dal nangam ak nangam kooku mooy buuxdu bañ ci xol ñetteel ba ba ca tegu bokk na ca waru yetul fadli xool bëtam ngënil xalal xayri ci keneen koo gis foo ne yaa ko gën nit ku baax dafa war a jàppee boppam la xakim ba waxoon mu ne nit ñi ñett lañ ki nga mag ki la mag ki nga maase ki la mag xool ko ne moo la gën ndax moo la fi gën a yàgg moo la ëpp lu mu def ci lu baax ki nga xam ne yaa ko mag jàppal ne moo la gën ndax yaa ko ëpp yaa ko fi gën a yàgg kon yaa ko gën a bari ak caay-caay koo def ci kaw suuf ki nga maaseeg jàppal ne moo la gën ndax dangay ngay wan ne sa mbon gi ak sa caay-caay gi yow xam nga ko mais mbonam nga moom ak caay-caayam ngi xamuloo ko kuy xàttee nii nit ñi doo jël kenn ne yaa ko gën su ak piis di jëw nit ñi ci say bët walham su ak ak regeju mooy bët nit ñi ci jëm euh, maanaam jëw leen ci regeju mbaa ci loxo kook jigéen ñi ñoo ko gën a xam di wax ak nit rek am ku dox seen diggante nga piis ko lu bon la wala maanaam nit ki wan la gannaaw rek nga jël sa loxo rek sànni ko ko boole ko ŋóobi ko kooku mooy lamsu beneen bu njëkk bi nag mooy xamsu moo tax wala xamsu ak piis wala lamsu ak regeju kooku moom bon gi mu bon a tax sax yàlla am na xur wum xadu ci safara wax ko ci alquran def ko ci saari suuf yi ne ñoo ñoo cay dugg moo tax mu ne waylun li kulli hummasatin lummasa lu bon la yonentu bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñi nga xam ne alhammaasuun wal lammaasuun wal maasuuna bi namima albaaquuna lil buraayil ayba yuxsiruhumullahu fi wujuhil kilaab mu ne ñi nga xam ne fu ñu toog ña ngay rega jooy di jëw seeni bët di jëw ci seeni loxo di jëw ci seen yenn cir yi boole kook dox di rambaaje nit ñi boole kook di sàkkul gor yi nga xam ne amuñ ayib ñi di toog di leen ni yàq seeni der mu ne ñooñu bu yowmal xiyaamee bu leen ni yàllay dekkil dañuy amee jëmmi xaj dootuñ dekkeeg seen jëmmi nit ña mais melokaane xaj la ñu yore ba ca tegu nag wal xabasu ak fo fo nag dafa sakkan fo moom ñett rek moo ci dagan yonentu bee ko waxal boppam sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi nee na kullu lahwin yelhul muminu baatilun illa salaasa mulaaxabatu rajuli imraatahu wa tadiibu farsihi wa ramyuhu bi qawsihi yonentu nee na bépp fo bu nit bu dul ñetti fo yi na ñu ne ko ban ban mu ne nit kuy fo ak soxnaam da ngay fo ci dawante di seet ku dàq daw ak ki dàq tëb comme na ko daan yonent bi daan defek sayyidatuna Aïcha léeg-léeg mu raw ko léeg-léeg kee raw ko mu ne ko haadihi li tilka raw gi mooy raw gi mala rawoon kooku dee dagat na ba ca tegu mooy nit kuy tàggat aw fasam di ko jàng ngawar di ko fooyee kooku dagan na ndax dañoo bëgg bu ëllëgee bu jullit ñiy xeexi ngir lislaam fekk yow man nga nga war ba ca tegu mooy di di di di di maanaam fo ngir ci ay fett wala ay xala wala ay këno wala bi maanaam ay xeej ak i fetal pour jublu ca maanaam jub loxo boo lëgee bu xeex amee nga bokk ca ñay jam ñetti xeeti fo yi de nañ xee waaye nag fo moo waxati mu dul ñett dafa haram moo xam concert la bu yeneen ya ak yañ meññ yépp dafa haram fecc la ndagala yeneen ya ci xaju yépp boo waxati rek xaraam na kon nag foxa ngoog wa suxriyatu ak reetaanu xol reetaanu xol mooy eh, xeeb nit rek alquran wax na ko laa yasxar qawmun min qawmin ase an yakunu xayrun minhum wala nisaaun min nisaain ase an yakuna xayrun minhunna bëri na koy xeeb di ko ree ci sa xol fekk na moo la gën ci yàlla moo la hëpp cër ci yàlla ba ca tegu nag wasina mooy njaalo kon gis nga ko bu mu njëkk a wax rek moo gën a xaraam ba muy détaillé njaalo la mujje yi yépp ma wax muy fen jëw rambaaj ak ya ca tegu yépp ñoo gën a xaraam njaalo kon xam ngeen ne bàkkaar yee rëy na de ba ca tegu nag mooy wanasaru ak xool ilal ajnabiyati jëm ci jàmbur bu jigéen wata lazasu ak bànneexu bi kalaamiha ca waxam ja jigéen goo takku romb la nga di ko xool rek kooku boo ko defee def nga lu xaraam waaye su fekkee xool bu njëkk bi nga tayut la nga xool rek gis rek gaaw dëmmooyu fekk tayuloo ko kooku moom jéggal nañ la ko waaye boo nekkee ku xaw a doy waar yi ne maa ngi ca xool bu njëkk ba ba tey rek kooku moom tamit ba tey dangay ngay am bàkkaar bu rëy rëy rëy ba ca tegu nag mooy bànneexu ci wax yu nit ki léegi léeg danay dal ay jaaykat wala jëndkat nit kaa ngi jaay di jigéen ñaata lay jar rek jëndal mu jeex waaye danga fay nekk bëgg a guddal wax ja ci min mbiram jaay ma mbaa mbiram jënd ma fekk rek ku sàggan nga bëgg rek bànneexu ca wax ja ah loolu lu doy waar la am na ki ñoo xamee tey jigéen ñiy wër di jaay lañuy jaay bu koy góor di jaay sax duñ jënd ca duñ jënd ca góor nga ca jigéen ñi la jënd kon loolu danga nga ciy da nga ciy yëgee ne dëgg-dëgg la ñuy bëgg jënd di ko naan taxul leen a jug am na leneen kon nag ku sàggan mooy koo xam ne jigéen ngay wax ngay bànneexu ca kàddu ga kooku lu bon la lanke naroon a bànneexoo bànneexoo ko ci kàddu yàlla comme na ko yonentu yàlla Moussa defee woon Moussa bi ko yàlla waxeek moom mu bañ wax ja gaaw a jeex muy bànneexu yàlla laaj ko benn question Moussa tontu ko lu hëpp ñetti tontin yàlla dafa ne ko Moussa lu nekk sa loxoom nday joor wama tilka bi yaminika yaa Moussa Moussa loo loo loo yore ci sa loxoom nday joor rekk la ko laaj qaala hiya asaaya samay xet wi la doy na jeex na waaye wax ak yàlla dafa neex jëmam ji lépp di ci bànneexu te bëggul mu gaaw a jeex moo tax mu ne ko qaala hiya asaaya atawakkau alayha wa ahusu biha ala ganami wa liya fiha maaribu oxra loolu lépp yàlla laajut ko ko kon nit ku baax day day bànneexu ci lu baax bañ a bànneexu ci lu bon ba ca tegu wa aklu amwaal naa si lekk xalu nit ñi bi xayri tii bi nafsin ci lu dul teeg bakkan tiraa nga nit ñi lépp loo lekk ci nit te fekk maanaam bakkanam daakoorul ca rek kooku dugg na ca wa aklu ak lekk bi safaati ci ràmm lekk ci ràmm nag mooy ku nekk ci xat-xat yow yàlla may la personnalité boo ca waxee mu dañ wala boo ko jëfee mu dañ nga ne nañ ma bokkal dara suñ ma ko joxee ma génnee ko kooku xaraam na daraja lu daraja ju la yàlla jox la te yow loo defal yàlla ba mu jox la ko ki nga koy defal lu mu lu mu def yàlla ba yàlla xeñ ko ko kon dimbale ko ci te yàlla tax kon daraja duñ ko jaay personnalité duñ ko jaay waaye man jotaay ba fu ma fa demee gën koo yokk daraja jotaay ba gën a yokk kon da ngeen may jox nangam xaraam na. diw mën naa cee wax léegi ñu génne ko amul benn wax du ma ci sonn samay téléphone rek waaye foog ngeen jox ma nangam xaraam na def ko te yàlla tax. aw bi diini wala dundee diina ji moo fi gën a bëri bi maanaa rek yëkkati projet juma walla jàkka ne dama koy tabax defar plan yu bari fu ne nga yónnee. ñu yónnee la maanaam jàllar bi ku jox la xaalis ba nga takkee ko ñaareel wala tabaxee ko kër jëndee ko oto jumaa ja moom fa xemoon daaw lay xem ren waaye liñ fi tuddee ci ay jumaa liñ jot ci ndimbal lépp buñ ko buñ ko doon def jumaa ja dana gën a sori kon loolu xeet la ci dundee diine diine dañ koy dundal mais duñ ko dundee wépp xew tamit wu nit ki organisé jublu ca ngir lum ca amee mais jubluwut ca lum xamaleen ñi réer kooku tamit dundee diine la wa taaxiru salaati yéex a julli xaraam na xam xan awqaatiha walis waxtu ya buy waxtu jot lum la man di fekk bàyyi ko nga dem julli ji danaay wax ne lépp loo nekk bu dee jotee da nga ko bàyyi dem dee kon nag loo nekk bu julli jotee demal julli ko bu la ko njaay yàqal bu la ko liggéeyu ouvrier yàqal bu la ko dara yàqal loo nekk boo déggee maanaam noddu tegal kele ya nga dem jàppi julli door a continuer ci li nga doon nekk kon dana xam barke waaye continuer nekk ci rek da ngay tardé te doo xam barke da ngay sonn ba dee doo xam dara léegi-léegi nga gis koo xam ne da doon jàng oto nekk apprenti bu dégg bëccëg hittee mooy xam permis rek waaye ba muy hut permis hutaale hut ca woon julli bu waxtu jotee du julli wala mu nekk kuy jàng lam doon hut lem mooy di diplôme mais ba muy def loola hutut ci woon jaamu yàlla ndax bañ koy xeesa dañuy bañ ba ne ko jug leen ngeen dem jàngi bala ngeen a naaje duñu wax julli lépp boo ca nekkee nag ba xam di diplôme ba yàlla nag téye loxoom ne doo ko fi liggéeyee de fu ne nga dugg mu jafe nga jàllal bi ku am permis mu ne la doo ko fi dawalee de fu ne nga dugg mu jafe nga dajale marchandise lu nekk ba mu teree laa julli mu ne la doo ko fi jaayee de fu ne nga dugg mu jafe kon looy def lu nekk jiital ca yàlla soo ëllëgee boo ko soxlaa yàlla yàlla taxaw bunt yépp hubbeeku te nag yéex a julli ci lu dul benn nganta boroom xam-xam yi ne moo gën a xaraam nit ku nit ku ànd ak waajuram bu jigéen fanweeri yoon nit ku ànd ak waajuram bu jigéen fanweeri yoon li muy bon bon waxtu julli jot amoo benn ngànta nga bàyyi ba waxtu wa paase nga door di ko fay yaa ko ëpp bàkkaar kon nag wa taaxiru salaati yéex a julli xan awqaatiya walis waxtu ya wala yexilu du dagan la woo ñeel mukallaf soxbatu faasiqin ànd ak kàccoor ku bon ba ko rek ndax ban laa jikkoom jee wàll wala mu jaala sa too du caaken toogaaleeg moom li xayri daruratin ci lu dugut lor daruratu nag muy lor dafa bëri mën ngaa jël billet avion fekk yenn bokk avion fekk faasiq la mënoo wala nga dem dajeeg moom ci restaurant bi mënoo ca dara wala ngeen bokk oto mënoo ca dara wala nga fekk ko ci jotaay boo xam ne dañ la caa woo ko fa mënoo ca dara te mënoo ñàkk wuy si kooku dara wareetu la waaye lu dul loolu nga xam ne mën ngaa dem ba ko fa ba ko fa bul toog ak moom ndax saa yoo toogee ku jéppi ak njéppee mën naa wàcc ci yow xukamaa wi dañuy wax ne ina tibaa tasriqu tibaa jikko day sàkki jikko wala yetlu bu bum sàkku rida al maxluqina ngërëmal ñuñ bind ñi bi suxtil xaaliqi bay sànji ci sànj ak aji bind ji kuy sàkku sàkkul ngërmande yàlla xaala wax na laahu yàlla subaan tuddama ak sellam wa taala te kawe na walaahu yàlla wa rasuloo ak yonantoom bi axaqu ñoo gën a xeyo an yur doohu bañ gërëm looleen in kaanu ndem nekk nañ ñoom ñooña mu'minan di way gëm wa qaala wax na alayhi salaatu moom yonantu bi ne laa taata de topp li maxluqin ñëxal kuñ bind fi masiyatil xaaliqi ci mooy aji bind ji kon dama bëgg a wax ne jëkkër dañ ko topp waaye duñ ko topp bay mooy yàlla waajur dañ ko topp mais duñ ko topp bay mooy yàlla sëriñ dañ ko topp mais duñ ko topp bay mooy yàlla lépp looy topp ci ñii nii wala kudul ñii nii bu fekkee ne dana la bijjal ak mooy yàlla rek ba ko waaye bëgg rek lu gërëm loo sa sëriñ sëñ bi na nañ bay tool ba nga xëy nekk ca tool ba yendu julliwoo tusubaar julliwoo tàkkusaan xam nga ne loola boo ko defee da ngay caaxaan bu ko sëriñ ba yëgee tamit te waxut la ko tamit yéen ñaar ñëpp ci ay caaxaan ngeen nekk kon moo taxoon maam xaadimu rasul ba mu santee taalibe ya aw sàkket ca njaareem taalibe ya bëgg ak ngërmandeem di sàkket rek ñu noot lu ñuy sàkket rek mu dem julli ji ba ñëw ne leen waaw li leen te ne julli ji ñu ne dañoo bëggoon a mottali sàkket wi mu ne fu ngeen yemoon ba ñuy nodd mu ne fii mu ne ràbbi leen lépp dem leen julli ji ñëw ràbbi la ngeen la ngeen fa ngeen tolloon ba ñuy nodd ngeen door a commencé waat foofa kon nag sëriñ bu mat sëriñ te du jay ab taalibe noonu lay def kon nag koo mun di topp bay toolab sëriñ baax na de waaye bu la bu ci faatal waxtu boo ca xasee faatal waxtu ngën mën a gën ci doon hut danga ca jëlee duma yu ko doole kon loolu jar naa bàyyi xel wala yexilu dagan lawoo ñeel mu kallaf an yafaala muy jëf feexlan jenn jëf xataa yaalama ba ta mu xamee xukkuma laay xatte bi yàlla fii ca jëf-jëf bala def dara xamal li ca yàlla wax ni nga fexe ba xam sa àdduna bi boo defee genn wàllam xam sa diine soo xamul nag ñi a ngi fi moo tax mu ne wayes alu nay laaj al ulama borom xam-xam yi booy laaj moom laajal ko xam rek doonte jëfut buy naan ab sa buy naan katab sàngar sax comme na laaj ko laaj moom laajal ki xam waaye nag wa yaqtadi nay roy bil muttabiina ca way topp ña li sunnati muhammadin ci sunaay muhammad sala yàlla ndul xiwallaahu yàlla alay ci moom wa sallama te musulal ko xeetam yi booy topp nag toppal kuy roy yonantu bi nga ne ko loo wàqi danaa ko suul waaye booy laaj laajal ko xam rek ki xam nag bu jëfee gën a baax bu jëfut tamit gën a bonati àll si nag mooy gaa yi nga xam ne yaddu loon dañu teg taxala taxat laa topp yàlla wayu xasiru nañuy moytandiku loo mi ne topp saytaane kooku nag mooy sëriñ yu baax gërëm moom mu kallaf li naf si ñeel boppam maa la nga xam ne raddi yoo gërëmoon na ko muflisuuna ñuñ si ñuñ si siir ñi muflisuuna ñuñ xam ne daat sànko na amaarum seen dund fii xëyri taxat topp yàlla taxalaa mu kawe mi ñoo ngi nag fayaa xasratum héemal seen perte ga wa yaatu la bukaayam xéemal seen yàgg a jooya yowmal qiyaamati keroog bis pénc loolu mooy ki nga xam ne def na lu baax ba tàyyi kuñ si siir yonantoo ko firi sallallahu alayhi wa sallam julli na xoor na joxe na asaka waaye xas na kii saaga na kii jëw na kii tiriyaana xalalu kii bu àllaaxira xaalis amut fa jëfam ju baax ja la jël fayee ko ñële ñu ne ko yonantu bu jëf ju baax ja jeexee taxaq yi jeexul nu ngi def mun nañu jël lu boni gaa yële mu ji ko ko mu ji dem safara kon dana xam koo xam ne lim def ci lu baax ci regle war na ko mën a yóbbu aljana waaye nag xàq yi mu xameel nit ñi bu ko fayee rek day mujj dem safara loolu nag neex naa misaal ci commerçant yi léeg-léeg nga gis nit ki xëy jaay lool soqee ko am fukki junne waaye toog ba ngoon rek kattan rek borom carnet yi ñëw jox ma ñaari junne yi ma xameloon jox ma ñetti junne yi ma xameloon ba nga xam ne da ngay mujj dépense boo yóbbu sa kër sax doo ko xam kon loolu ni mu xamee fii ni lay xamee ëllëg àllaaxira mbaa nit ki liggéey ba tabax kër fekk ameel na bor banque bi ñu xëy rek ñëw sisir ko génne ko ca biti mu mujj dem di luye ji kon nag lu moo tax mu ne loolu ak pert la ndax fii sax buy moom du pert ndax fii ñu la ko defee man ngaa liggéey xamaat fee nag moom liggéey xamatut moo tax mu ne fa yaa xasratum xéemal seen perte ga wa yaa tuula bukaami xéemal seen yàgga joo yowmal xiyaamati keroog bis penc nasalu ñu ngi ñaan laaha yàlla subhaanahu tudd ma sellam an yoo naa mu dëpp lañu littibaa'i sunnati nabiyinaa ki topp sunnaay suñu yonantu wa shafiinaa ak ajiramu suñu muhammadin kooku mooy muhammad salla yàlla na dooli xiwallaahu yàlla xale yi ci moom wasalaama te musala ko xeetam bi